L'ESTM, l'école des ingénieurs et des spécialistes du management de référence en Afrique, vous invite à ces journées portes ouvertes les mardis et mercredi novembre de 9 à 18 dans son campus situé sur l'avenue Anta Diop en face de l'hôpital Femme. Vous êtes nouveau bachelier et vous ne savez pas quelles études choisir après le bac Vous êtes étudiant et vous cherchez une licence ou un master dans les métiers du numérique, du management ou des énergies

Appelez-nous au 77 351 3807 ou au 33 825 28 89. ngeen boo réveillé mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di nuyu euh, gërëm leen ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média euh, dañ doon ka moo tax ñu yéex a yéex a tàmbali 9h26 mooy doog a jot tey tombé na ak lundi 16 novembre 2020 ñuy gërëm rédaction bi fi nekkoon depuis fajar ci li nga xam ne ni mooy info matin donc rédaction bi on les retrouve ñoom ñëpp bu ca ci diggu bëccëg bi ci ab jotaay bu ñu nar a présenté ci wolof en attendant ñu tàmbali magazine bi yéen mais en euh, euh, ngi fi euh, Maymouna Gueye Awa Gueye Mado mi bi Mado ay affaire u match da koo bëgg ay tàngal ay pasti changé ko yow bàyyi ko match ba tey <laughs> non ma ba ñibbi si di nga bàyyi match bi <laughs> Mado bëgg nga ay affaire u match bëgg nga tàngal bëgg nga pasti maa ngi nuyoo pare <laughs> yaa ngi perturbé plateau bi ci seddale ay pasti toi tu adores les pastilles et les 17 ans. juste un petit quelque chose bu am suuf. mais bàyyil màcc bi. waaw dinaa léegi je mën dafa bëgg màcc. dinaa naan ay café dépassé nañu màcc am nit ñi yeneen lu ñu bëgg. ay ceeb ay croissant. bu gisul lu mu màcc sax day tàkkamti ko. Mado Baye match non ay ma Baye li nga nekk ah, est-ce que j'adore ah, ah? léegi fête su moo xew xale bi ñu mel ni ay liir weer wu ne am lu ñu yéen su indi ah j'adore ça voilà léegi delloo fête su fête su leen <laughs> parce que maa ngi nuyoo Mado ngi perturbé euh, ak tàngalam yi muy séddale euh, bëgg vraiment affaire de match mais suba teel bul match del yéen yéy waaw léegi dinaa fexe di naan café le matin. voilà soit nga naan café wala nga euh, lekk croissant quoi. ah ça va ma poule. oui mon coq mon bonheur tu m'as manqué oui c'est comme nous. eh mais votre chaleur là. C'est vrai hein, je non, supporte pas la chaleur. Nañ sant rek comme accent bi votre chaleur. Non, man je suis français sur les bords hein. Et puis il y a les euh, comment ça s'appelle? Seen poussière bi supporte supporte hmm. ma ko. Am telling you supporte ma seen poussière u dëkk bi man. <laughs> ma bëgg a xaru. problème yaa ngi commencé léegi je pense que tey il faut ñu euh, ameen pour jàppale que. Euh, il faut ñu def accent ak accent bi tuuti. Euh, donc kii moom ñëpp la mel ni Awa Gueye dina fi am tey. non nañ ko jàppale pour kii ca. mais comme sànq tamit y a un société moom comme lu ne lu xew ci suuf dañ koy wax ci kaw. ñu xamul boo leen ma déggee ma yooxu rek. Mm, mm. jàpp leen ni sama mag ji noppi fi mu ne nii dafa fattu. seede yàlla maa ngi sant bu baax il faut parler fort. <laughs> xadee eh, ngi fi xadi taay dafa ñeme kaa ñeme ñeme xew daal ak événement xadi mm. programme lu ñu ko tuddee kii mooy xujja mbana mm. <laughs> nday xadi moo mën yeewu leen nag man yeewu leen yaa ma ci doy. <laughs> je te jure ah, mën na yeewu leen taay day jaay ay dessous ay chemise de nuit ah, man ne woon naa ko sax mu jaay garaam bu mais léegi chemise de nuit lay jaay. lépp ñu bëgg a nettali nii tey doo xaar ba suba nga yeggal yeneen yi. ah ok balaa semaine bee jeex dootul am lu mu wax de. parce que damaa gëj a kaa ak yéen te fi mu nekk damaa bëgg ñu kaa. tey moom émission tey moom émission spéciale kaa la. waaw ah, gerte yi am na ñu amaat doom sama ginnaaw. déedéet <laughs> amaan nañu ay doom ak yooyu non xew bi fekkee woon nag suñu Ablaye Diop xaas bi njëkk bi ah, J'étais j'étais où j'étais peut-être dans les. yaa ngi non nekkoo fi woon dans mes dans mes appartements à New York. Ah, ah ouais c'est vrai mais j'ai appelé xaas ah. oui oui ouais, j'ai appelé j'ai appelé xaas dañu ko mayaat njëkk beneen. Euh, non dama amaatoon beneen kii. xew beneen mariage non ñaar la. ak ban beneen bi. déedéet beneen xew bi nga demaatoon. xew Mbathio est-ce que dem na ay nit waaw yéen woon na xew Mbathio ñu mayaat la njëkk encore beneen xew. donc comprendre naa pourquoi ngay jaay ay chemise de nuit. ay yéen euh, <laughs> sama jabar yi. mais del jaay ay ndoket ay grand boubou. déedéet bàyyi ñu jaar foofu rek. jaay ay ndoket xale bi euh, euh, gel bi tout le temps da koy wax bébé. xam nga mu mer ne ko mais waxu yambar yooyu doomoo doomoo woowee lu dëgër. ay dangote. ay <laughs> ah, yambar yooyu. ay bébé bu ma woowee may woowee dangote. wala mu konkoro dangote. day dëgër. <laughs> ay lii cameraman yi gëj ngeen a di réer da ngeen daan bilaay maa la raw maa la raw Ndiaye Ndiaye Diatta Ndiaye bilaay maa ngi waaja a débat sax de nag je suis venu juste nga yow damay préciser dama ñëw juste pour vous accompagner quelques jours maanaam man maay borom xam-xam yooyu ñu jëlee bitim réew ñu ñu dañ ma Youssou daf ma fi indi pour ma defal leen formation accélérée voilà consultant la léegi donc si vous avez des questions profito leen ci ngeen parce que vous n'avez qu'une <laughs> semaine yu ngeen mën a passer avec moi. xam nga li la ciy fekk. voilà sa dem demee. Ah. xam nga lu la ciy fekk. Ah. du xam nga ko dem définitivement. déedéet. <laughs> mënu ma koo wax en ah, direct sañoo ko wax <laughs> gi fi dafa xurfaan xaw ma dafa dafa dafa yaam Amadou Ndiaye Mbissane na ñambataan na boole na lépp bàyyi leen doomu jàmbur ji kii day génn ci télé bii mais bii ak bii moytu ko fan yi waroon ñëw ci télé bi de. ay jat la. xam naa certificat joxeel waatal jaru ko de. bii bii. parce que ñëppay seetaan. te temps dafa mel ni affaire kii jàpp nañ la jinne yi. <laughs> ah bon. il faut ñu yóbbu la ci xaas. naa la yóbbu. maa ngi ñëw ci yow de. bii ne mu xëy def rouge nii. ngi ñëw ci yow maa ngi ñëw ci Maymuna. ci Baye Fatou. gaaw tey dinaa dem ba seeti waa Impro. bàyyi na mën naa la. maa la doon Amadou Ndiaye. mbaa gisaan Ndiaye yaa ngi cool. mbaa mm-hmm. yaa ngi tane. waaw tey da ngaa de. yow nag coro baadoo la nga waroon nga maa gelu xale yëpp am. ah ñoom ñëpp la seen këll po bëri. waa déglu ma waa dégg xale yi maa leen gën a feebar boo boog léegi laaj leen ñaata certificat médical laa fi andi. ñaata semaine lañ toog gis. da ngaa funki waxal leen yàlla. funki ah. li Gambie li Gambie ay naan da nga dee duuf. yow temps yi da ngaa dala da ngaa dala. <laughs> <laughs> <laughs> ay ah. tey xam naa émission bi dañ koy teel a dañ koy teel a arrêté bu ñu nuyoowee rek tour de table après ñu tàggoo et puis je rappelle encore que je suis un consultant euh, une semaine euh, une semaine ak ak ak ak waa TFM euh, une semaine pour les téléspectateurs donc toute la semaine man ak animateurs yi rek à partir de l'autre semaine pour man ak yéen ñuy wax téléphone et tout ça après je vais prendre mon avion ma delluwaat. voilà donc profitez-en je vais retourner dans mes appartements Modou Bale Baye Fat Kiné yaa rafet doom dem naa seeti ko bronze barki yonent bi sa doom ji kaay màggu jigéen màggu jigéen non seulement dafa gaaw waaye lu bàyyu xale yu jigéen yi nga daan cingeuse avant ngay takk jabar lu ñooñu daj rek yow prépare-toi pour les bul dugg foofu sa doom xees na. deuxièmement non garaawul jarul macha allah may maamam <laughs> ndax xale bi maa ko may Mamadou Ndiaye. Eh, eh. troisièmement sa doom ji dafa judd rek toog xepp. donc. dama lay sànni. Ah. dama lay teel a avertir. dama lay teel a avertir. dama teel a avertir. li nag. ñoom day Fatou. Marie Louise Hélène li seen bàyyi yow di nga ko allah parce que àdduna àdduna àdduna karma la karma voilà vu ta fille c'est une princesse elle est trop chouette et je la garde pour mon fils Fadel qui est tout beau voilà yaay ji yaay ji ak mu naan xanaa dañu ko dee dencee sa doom bi <laughs> yéen cas yi ma nar a cas tey dama ragal seen rubrique yi du am tey spécial cas journée cas ah, dégg nga dégg nga Medoune mi ngay wax <laughs> waaye moom it am na ci naqaru xol de doon res <laughs> moom de xoola balaa jékki laal na moom de balaa jékki ji nañ ko bindal ab kayit léegi ndax semaine bi yëpp <laughs> ci kayit impro laay tudd <laughs> chaîne YouTube bi si internet bi ak télé bi muy waaj a ibbi maanaam midun moom à tout moment njaga dina ko jox kayit moom moom ci kayit la ne nii yow noo xamee nii ah jox nañ ko kayit yow di nga dégg dara fan yi ni si naa te lépp laay wax mu ngi waaj a ibbi télé comme leeral TV de mais su boobaa xam nga lan nga leen di wax Youssou annoncé na ni waa leeral am na nañu télé donc man su ma ko waxee. si on me sanctionne. ils n'ont qu'à sanctionner Youssou Ndour parce qu'il est devenu animateur comme nous. vous le retrouvez tous les samedis. dans fii tey. il m'a remplacé hein Youssou. oui ah oui franchement. tu que m'absente il faut plusieurs personnes. pour ñu remplacer loolu moom dëgg la. mais tegal na tànk yi xoolal. ah waaw dëgg <laughs> ils oh appellent des journalistes des professeurs ah, des animateurs man ñooñu. il faut toute une équipe pour ta ah, remplacer ah moo tax je serai un consultant pour deux, deux semaines, semaines à partir de ce matin. oui Maïmouna. oui sama waa jàngi. maa ngi toog yow da ngaa yaru du ma la dugal ci benn gàmm. Eh, mais gis naa la ci soirée yi quand même. Hmm? restaurant ba keroog. waaw waaw mais je suis rentrée plus tôt qu'elle. ah yaa a dem mais photo wu nga. may a waaw photo yaa ngi photo wu ñu dugal. bu nga. ah. yaa bu nga. bu làmb ci dara daj nga ba pare wala da ngay eh, làmbaatu ba tey. daj naa daj naa ah daj nga. waaw ok kon sant yàlla yow duma la wax dara. léegi nag. <laughs> lii ah, <laughs> eh, moom non je suis pas d'accord. déedéet kii dafa yaru. Ah. dafa yaru moo tax dafa am kersa. dafa yaru yow dara safule ñii yëpp dara safule. Ah. gay xaw a yow. <laughs> I love you so much. <laughs> yow man dama am problème. Ah. te tey laa koy leeral. Awa Gaye elle fait partie des rares personnes yu génn ci tele bi. Uh-huh. toujours on reçoit des appels. déjà yu naan ma may ma Awa Gaye oh, dama bëgg leer Awa dafa am jëkkër man bi ma ko dee xal di njëkk a gis pour le first time <laughs> dama ko dee gunge ba buntu këram rek mu ne ma kii moo dee nekk sama husband dama ko bule ne ko wàccal sama oto <laughs> yow ku bon nga sa jëkkër nag ne ko xel baaxul dëgg la moom du xëy di am ay jaare ni ñu koy waxee ci engrais lekk xel sa biir day daw sa jëkkër bi ngi am jaare ne ko saa yu biiram dawee rek yeah your your husband is a jarring <laughs> the damay xool man kii man comme pain <laughs> he have pain it's the abdomen. abdomen la ñuy wax. yeah. he has diarrhea diarrhea is. ndax diarrhea. diarrhea yeah. yeah. Uh, uh, uh abdomen. he walk. Mm. <laughs> Mm. he don't work kilifa la ah, sama ay toilet. xamoo yi dañuy maam. ah whatever lu la neex. ok ok defal dama bëgg nga préciser nga xool caméra bi wax leen ni yow danga dee am jëkkër. Um, actually I am married. actually heureusement bu ah. ñu ko bëgg bu dégguñu anglais maanaam ah, dañuy insister <laughs> kii bëggul régler problème est-ce que bëgg na ko ko régler actually am jiili jéeme mi nga xamante ni déggul anglais dafa dafay foog ni kii day jaayu bàyyi la jigéen ci télé yi di jaay actuellement ok ah? présentement you know dama am jëkkër je suis très mariée très mariée et bien mariée and bien mariée but then no no no but then man my private life is my private life. yónni ma kenn wax sama life. yow dégg nga lii. mustala laa yóbbu en anglais laa. kii ngi traduit. <laughs> sa sant def na yu rëy. lu mu wax. <laughs> But, uh, no, but, but I, um, I just don't talk about my private life. It's okay. Ah. private. Mr. Lai, legi hola. Mr. Who? Lai. Lee, eh, eh, you, I'm you're, lie. Hey, I'm gonna lie to you. no, it's not Crap, a lie. It's I'm telling you. Lila. Lila. Eh, me, my name is Diallo. What? Lie is like. Sisai. Lie, but then what will I do? Ah, lie. non waxuma laay boobu de yu laay. Euh, mooy kii genre fen non waxuma fen de comme lii la sant damay jël tur sant bi. ma jéem koo. anglicisé la. il a il de l'accent boo nee na lan lan moo tax nga ma dee xulool <laughs> lu tax ma dee xulool mu ngi de sëkka yow mu ngi sëkka du xam nga ko. mu ngi dee mu ngi sëkka. mu ngi sëkka ana yow xale nga parce que Gambien yu njëkkee bu ñu la mu ngi sëkka. <laughs> Eh, gis nga bijou yow. Eh. Hmm, bijou man dama feebar. aywa émission bi commencé. dañuy kaa dafa xew. dañ leen naan. micro yi. Eh, damay ñibbi. yow yaa war a changer place. soyons sérieux. yow soyons sérieux. ça c'était une première partie. je rappelle que émission bi commencé. ça c'est ce qu'on appelle before. lii before la tudd. Euh, voilà lii before la tudd waaw lii c'est le before. lii is called um, comme <laughs> warming up. dañuy warm up. ok voilà. mooy mooy dañuy tàngal. voilà donc émission bi dans quelques instants lay commencé Pape Samba tu prépares le tu prépares le générique euh, puisque nous sommes une télé euh, quand même sérieuse Euh, qu'est-ce que je disais man li ma doon wax dem na. dafa am lu ma bëgg a wax. ok xam nga ne Madoshi loves me so much. mu gis sa ka. ngi sëkk kay. gis nga awoon nag fi mu ne Pape Cheikh ne wuti na kenn du ko mën a téye mais à tout moment dangay wàcc plateau bi. je te jure. parce que xam ngeen ah dañ lay laaj. man j'ai des amis man dama bëri xarit gam Gambi. Adja Aïda Socé. sama xarit la. Saaro Baby. sama xarit la. Fatou Camara. sama xarit la. policeman Diagne. sama xarit la. ak Mamadou Seka. Mamadou Seka. dafa dee nekk suma xarit léegi nag boo xëyee nga gis gambien bi da nga ko dee laaj petit euh. mbaa mu ngi dee sëkka mi ngi dee sëkka I don't get that mi ngi dee sëkka man I get that you don't get that nothing you speak mm. it is a sëkka just definitely non <laughs> <laughs> <laughs> li ma xam su la gambien bi di nuyu euh, boy nakam yaa ngi cool yaa ngi aay. everything is fine. ok mm, ah, everything is ok everything yooyu dafa sérieux ay ay yaa léegi adduna bi léegi doxatuñu ci sérieux léegi ñu ngi dee sëkka da bëgg ma dee la lan la ñuy njëkk a wax. waaw kam <laughs> sorry chers téléspectateurs ñu eh, ngi dee sëkka. Eh, dañuy wax. aw ah, ngeen dina gaari fii. <laughs> lii tamit. ay ay awa gay mi. te réer ji daa neex. awa awa je viens de comprendre pourquoi les gens veulent avoir ton numéro de mm-hmm. téléphone. Ah. ok léegi ah, léegi man man jeex na. <laughs> bi day commencer dans quelques minutes mais on sera on sera très sérieux dans quelques hmm, euh, minutes. on parlera euh, euh, société temps yii yëpp nag lu ëpp ci li ñuy waxtaanee je supporte pas la poussière donc mes yeux sont rouges parce que damaa romb xale kat naan sa waaye dafay tox yaa <laughs> pëtee ma ko jooyaam sawaay di tux yàmbaay léegi loolu sawaay sawaay yow man ngay sosal yow dinaa la sosal lu rëy est-ce que xam nga ni sama nopp yi ku ko dagg ba du ma dégg nga kii boo ko daggee ba du dégg damay loqati say bët dootoo gis ki naan ma ay yooyu togg togg xam nga kii daf ma bëgg a dugal nan la togg yow man ngay kii man ngay sosal sama bët xonk rek nga fam ni fay yow da nga yëg ko fay affaire bi xam naa naa ni. da ngaa fay affaire bi <laughs> da nga sonn kay. donc xam nga xam nga fan yii yëpp ñu ngi waxtaanee affaire euh, euh, immigration euh, irrégulière <coughs> clandestine ku nekk ak nu mu ko tuddee. Mm. on va revenir sur ce sujet ñu ngi gis sax ni xalif bi xalif général des Mourides. Mm. ci kàddug Serigne Bass Abdou Khadir am na déclaration bu am solo. boo xamante ni def na ko ci parce que boobu ba tey kenn xamul ku nekk ngi joxe sa xalaat et tout ça mais moi je trouve que c'est phénomène la bu kenn mënul comprendre. Mm. gis nga tolluwaay. tolluwaay nit mënu koo comprendre tolluwaay nit moo koy comprendre quoi c'est-à-dire ku ci mënti wax que muy Macky Sall que muy waykat yi que muy ñiy sensibiliser que muy influenceurs yi que muy animateurs yi tolluwaay la benn doomu aadama mënul comprendre y a des gens qui son dans ce pays mm. am nañu liggéey am nañu xaalis mais dañuy xëy bëgg a gàddaay dem barki sëriñ Touba ah, désespoir tolluwaay waaw tolluwaay la tolluwaay la wax euh, ngi naan ne am um, Euh, façon euh, acte yii nii mooy yaa ngi xaru te xaru si lislaam euh, mm-hmm. si si si kii mm-hmm. mooy daganul parce que mm-hmm. wóor na la ne li ngay dem nii sa bakkan mun na cee des seen dëkk bi dafa bëri poussière soo seen ndox mi neexul daal dafa xonq waaye bàyyi ba tey maanaam keep asking this question lan moo tax ñoom dañ la naan yow mënuloo comprendre lu tax ñun ñu décider. waaw mooy li may lakk da nga dégg loolu tolluwaay la yow tolluwaay bi li ngay fiil pour def dara. yow rek yaa ko mën a understand. Mm. keneen mënu ko understand. mais c'est vrai mais mënuñu tamit toog di wax que la mënuñu leen ndax yow boo xoolee nombre <coughs> de personnes yi décédé en 10 jours c'est énorme mënoo toog yow nga ne porteur de voix nga am na ñu lay déglu nga bañ a wax. il faut nga wax parce que ça fait mal quelque part da ngay toog ba guddi di ko xalaat. ñoo xamante ne seen ay doom lañ perdre ñii seen jëkkër ñii yi seen ay oncle suñu ay frère lay ak suñu ay sœur ñu ñooy def ça fait tellement mal mm. man man tout le temps damay xalaat ma ne lan mooy solution bi parce que c'est vrai que tolluwaay la mais comment on peut les aider à ce que même bu ñu amee ay problème wala dara ñu toog fii si dëkk bi parce que tamit dafa metti tout le temps ngay dégg depuis xaw deux mille deux mille depuis les années ba léegi. Ah, chaque fois on en parle da foog ne da foog ne avant ngeen mooy bañ a xàddi ku ci nekk li nga ci war a bay ci waar bi nga bay ko mooy yow mi nga xamante ne yàlla euh, nattoo na la wax. donc saa yoo toogee ci télé profitool nga wax yaay ji nga xamante ne moom tamit. waaw mais on est wax rek xam nga tolluwaay la ci tolluwaay boobu ñun tamit ñu bañ xaddi état bi war a def dara moom tamit mu bañ xaddi trouver des solutions mm. ki nga xamante ci société bi la nekk mu yaay bi ñuy blâmer tout le temps mm. papa bi ñuy blâmer moom tamit mu bañ a parce que xam nga tout à l'heure tout le temps fan yëpp on parlait de ça mm. que y beaucoup de mamans yoo xamante dañ koy def mais tey ci journal bi bi ma déglu y a une dame qui a dit yëguma ko sama doom ma dem na kon dimbali leen effet surprise boobu noonu. c'est-à-dire mhm. jékki-jékki neex na trop ah mhm. boo booy mhm. waxtaan ak ñoom jékki-jékki woo sa sa yaay téléphone. ne ko maa ngi bitim réew ne ko man maa ngi maa ngi maa ngi. loolu dafa neex de yaay yegg naa. waaw yaay allo yaay gis nga ko léegi yaay yegg naa dañ ko def dañ ko def challenge dañ ko def challenge da ngay jékki-jékki def vidéo daan ne eh, di ko partagé naan wooy yaay yegg naa léegi fi ñu doon wax a ngi nii mm-hmm. donc je pense que man moom damay dem moom le mal <laughs> le mal est beaucoup plus profond li ñuy wax man moom par A ou par B xaw ma fan laay jaar damay dem yoon bu baax yoon bu baax mu a am ndax loolu. oui euh, bari na daf doon dem sama tante di ko ñaanal euh, yàlla xaare ko àjjana euh, ah, ah, bu baax a ah, baax doom ji dafa yegg te def na lu nekk pour doom ji yegg doom ji dafa yegg rek doom ji dafa yegg ne ko yaay dugg si naa Italie wallahi fa la sedd loolu day seddal xol fa la fa la gaañoo because she was she was hmm. like kii def si yeggee lu bari bari dina change and stuff like that so foofu la choqué kenn kenn xalaatul woon ne comme dina génn àdduna hmm. mu doon loo hmm. xam ne ah wërsëg boo xam ne yaa ngi koy xëccutu waaye est-ce que mooy di jig na la est-ce mais nekkut a xam mais problème man tolluwaay la mais problème de société am na ci part de responsabilité mooy société bi ñuy wax toujours responsabilité yi day ñëwaat ci ci société bi parce que à chaque fois pression sociale bi toujours dañ lay wax wala sa doomu diw moo la gën doomu diw ku nekk moo la moo la moo lay gën a wax mooy tax comme on yaakaar mooy tax nit dem màkk mm-hmm. ñun ñëpp dañuy am yaakaar xale yi dañu am yaakaar ni bu ñu demee ma ba tey je vois des sama ay moroom wala ay xale yoo xamante ni dañu gëm ni par exemple bu ñu demee lundi mardi mën nañu am xaalis mm-hmm. mardi mën nañu tekki loolu loolu la gëm tey ku fa nekk sax di leen wax ñi dëkk bi dafa metti et tout ça du du a gëm boobu ngay wax il faut continuer de sensibiliser comme ni Bijou wax parce que mooy mooy en fait ñàkk moo metti Pape mm-hmm. te balaa nga koy xam nga gis ñoo xamante dañuy am seen soxla mënuñu ko faj eh. te am na foo xam ne boo fa tollee liñ naan da ngay am da ngay limité dootoo mën a xalaat dootoo logique dootoo kii dañ naan nit boo ko toppee ba si miir bi bu sësee sax mm-hmm. boo da ngay fippu daal ku kuy bëgg a dee fippu ah muus toppal muus di ko dàq ji voilà bu demee ba amul amatul day wëlbatiku laaj ma day tourné xoola song la sa kanam lay wër songaale sa waa mu noonu donc après c'est très nga nga nga mun a xalaat ni ko ko def mais dañ am na ñoo xam ne fu ñuy toll tamit dañuy bëgg mais mm. quelle que soit la raison aussi. c'est mhm. pas c'est pas une chose à faire et puis parallèlement je defuma parce que télé télévision léegi dafa xaw a graaw. xii wax bugguma xiir kenn mais j'ai les yeux rouges moi. oui. Mhm. lii jar na immigré. Mhm. lii jar na génn je supporte pas la poussière. <coughs> de Dakar je te jure ah. da ngeen am pollen dans cette maison là. Ah. non y a pas de ah, pollen ah yii moo tax nit ñi di dem. mais moo tax ma naan suba ba tey. voilà kon allergie la il faut juste se mettre après benn antiseptique. allergie la am na am na lu mu bëggoon ndax fàtte naa ko. bëggoon xiir voilà. mais lan laa ci bëggoon teg. xamuñu ko la ah, ñun xamuñu ko de. peut-être tu as vu des gens. mënuñoo seet. Baye how Baye how was your US. je perds mes mots. c'est l'émotion how was your US. laaj nga ñëpp wax nga ñëpp now let's ask you. naka la woon sa US. how did you leave your US. kooku koj nañ ko ci snap bi. déedéet nee na si loo nekkoon. sa tukki bi daal maa neexoon na. dafa bàyyi bañ dugg ci émission bi. waaw d'accord léegi balaa léegi xam nga ñuy def léegi xam xam nga nu ñuy def comme première partie bi kaa la woon. Hmm. ñu ngi doon waaj a dugg ci chose sérieuse après dañuy delluwaat ci beneen rubrique cas. parce que da nga doon perte euh, sa oh, mémoire waaw soo ma tax ma la doon dama am perte de mémoire perte de œil. <laughs> de <laughs> perte au goût rek. Ah. sa rakk gumba na tëx fi mu ne yëpp laa boole léegi su may dox sax damay soox sa rakk ji dafa la faj léegi ah sa ji tëx na rek <laughs> Saour la dañuy tooñ rek dañuy tooñ rek voilà faites-vous plaisir lundi xam nga c'est souvent pas évident mais on est là pour vous accompagner dañuy joxe couleur yi euh, ci biir kër yi ci euh, jotaay yi comme sa ngeen mën quand euh, di waxtaan ci sérieux mais bu mu leen empêcher de temps en temps ngeen bifurquer ci ay affaires yoo xamante ni quand même ça peut toujours faire plaisir parce que adduna dafa xaw a metti 9 h mooy doog a jot exactement on était solo muy mm-hmm. yoo xam ne ni fan yëpp àddina koy waxtaanee muy xale yi nga xam ne ni ñu ngi jël gaal yi di dem benn gëstu bu am solo boo xamee ni may mun a euh, def nga ko ci je pense que mën nañu ko euh, tegal téléspectateurs yi muy réglementation yi nga xamee ni moo am euh, en termes d'immigration voilà Pape Cheikh xam nga euh, dafa am li nga xamante ni moom mooy immigration irrégulière ak mm. immigration choisie mm. donc euh, immigration nag ñu ngi gis xale yi ñu ngi bëgg a dem mais dem dafa am yoon te boo yeggee ci dëkk ba tamit am na dëkk yi ay loi yoo xamante ni teg nañ ko ñu am possibilité soit delloo si la wala accueillir parce que ñu ngi gis am na xale yoo xam ne yegg nañ fa mais instant ñu ngi si camp de transition yi mm. am na ñu bëri ñu naan euh, président signé na pour ñu delloo si leen ñu ngi koy laam-laamee et tout te defe naa coono gënul metti nga dem daj yëpp dem ba yegg ñu dellu si waat la te dëkk yi nekk foofu am nañ droit boobu mais euh, balaa ñu ci gën a xuus dañu dégloo ki nga xamante ni mooy soxna Naata Samb Mbacke nekk ci affaire sénégalais de l'extérieur mu wax ñu ñoom ban rôle la ñuy jouer par rapport ak xale yooyu ak immigration bi nga xamante ni moom <coughs> mënu koo teree doomu aadama lu ñuy tukkee mooy wax bi ban façon la ñu tukkee ak ndax booy tukki yow dangaa war a tukki wala li nga war a def fële mun nga ko def fii wala yan anam nga war a toogee sa réew liggéey ko jëriñ fa ak loolu mais tukki moom ala kulli xaal booy seet salaahu salaam fu mu jógee fu mu juddoo ak fa mu nekkoon si suñu référence islamique nga koy xool ci dëkk yu bari continent yi tey bu ñuy wax immigration par exemple Amérique ay portugais ay britannique ñoo ñoom ñoo ko trouvé te bu ñu tukki woon du ñu trouvé continent boobu duñu Amérique tey du am. Euh, daf may naqari may dégg ñuy wax immigration clandestine man damay wax immigra immigration irrégulière te yi ñu gis léegi nii muy am de par sa fréquence ak ampleur bi ëpp na jéggu na dayu donc il faut ñu toogaat ressaisir xam ne tukki bi dafa war a am lu lu ko lal mooy dangay dem pour wuti wala da nga am xam-xam di yokk ji sa xam-xam mais nga dem wuti ji visa boo ko mënul nga toog sa réew liggéey ndax man li ma gis de. en faisant cinq pays ci monde bi gis naa loo xam ne ñu bari tey ñu ngi bitim réew bëgg a ñibbisi te Sénégal nag am na ay perspectives peut-être que jeunes yi aussi ñu ngi perdre espoir ndax xëy na am na liggéey bu des ci côté famille ci côté état ci côté ñëpp nañ ko wax parce que yar moom ci ci ci famille la jiitu mais ñëpp dañ ci am responsabilité société day yar koñ bi dafay yar gox bi di yar ville bi et cetera cetera ba ci kaw am na ñu xam ne nii sax am nañu parce que boo gisee ay exemple yu doy waar yu jàng ba am diplôme di dem ci géej gi peut-être que dañoo xamul mais man soo gisee euh, sama gis-gis li ma gis mooy ñàkk information ak ña nekk fële waxuñu li ñuy gis ak ñi nekk fii xamuñu la nekk fële donc c'est l'inconnu qui attire l'individu defe naa pour muy dem ci yenn aventure yi mais wax dëgg yàlla tukki moom du lu ñuy mën a tere du lu ñuy mën a def lu du dañ koy réguler dañ ko jaarale ci yoon ndax dëkk bu ne am nga droit parce que dëkk àdduna nag li tax mu nekk àdduna euh, the world is flat li ñuy wax c'est un monde plat c'est-à-dire ku nekk rek am nga droit dem fu nekk. nit mun a dëkk Sénégal rek ne duma dem Gambie duma dem Mali nit mënut a dëkk Amérique rek soo seetee ne ñoom ñëpp seen richesse tey ñu ngi waxtaane pétrole bu ñu ko soxlaa Amérique muy première puissance tey dem di wax ak naari naari bu ñu soxlaa leneen dem ci ñoom Amérique. Ajotunata euh, euh, Samb euh, madame Mbacke doon wax lu am solo muy domaine boo xam ne daf ko miin ñun yàgg nañu liggéey ak moom ci ay projet ci jàppale ay doomu Sénégal yoo xamante ne ñu ngi bitim réew surtout jigéen ñi parce que immigration souvent da nga ciy gis ay jigéenu jàmbaar yoo xamante ne Sénégal daf leen di jàppale ci ay financement donc madame Mbacke di ci def taxawaay bu am solo et voilà c'est amoon na solo mais mën nañu dem seeti ko quand mm-hmm. pour mu jox ñu juste la rek ci li mu mën a expliquer pour quand même nit ñi mën a comprendre yoon pour dem. Mhm, parce que en fait euh, comme ni nga ko waxee dafa am yoon bu nit war a am. pour mhm. aw pour dem. Mhm. parce que moom expliqué na ni nit kenn mënu koo tere tukki parce que tukki droit la boo xamante ni nit da ko am mais. Euh, dafa am yoon yoo xamante ni dañ ko teg pour nga tukki mhm. c'est-à-dire looloo tax ngay am titre de voyage looloo tax ngay demander parce que ni nga buggee euh, dem noonu la dëkk bi nga xam ni fa ngay dem amee souveraineté mhm. donc dafa am li nga xamante ni ñoom ñooy droit de protéger les frontières am nañ droit d'octroyer des nationalités c'est-à-dire nga dem ba foofu bu leen neexee sax ñu may la d'office nationalité naturalisé la am nañ li nga xamante ni moom mooy droit wu admettre ay nit ñu dugg wala droit boo xamante ni dañ lay delloowaat depuis boo di juste boo yegsee am nañ aussi droit lutter li nga xamante ni moom mooy trafic de migrants c'est-à-dire suñu xamee ni ko yow da nga jaar si yoon boo xamante ni baaxul mën nañ boo yegsee ñu delloo la waat la ba pare parce que ñoom dañ koy def déjà pour ñi fa nekk parce que état dafa am rôle de garantie de la sécurité nationale c'est-à-dire ñi nga xamante ni dañuy ñëw xamuñu fi ñu jógee aéroport lu tax ñu koy privilégié ak titre dinañ xam nit bu dugg si si dëkk bi dinañ xam kan la fan la jógee ban dëkk affaire yooyu donc bu fekkee da nga aw nag si frontières yi état bi moom dafay manqué toutes ces informations là par rapport ak kiy dugg si si dëkk bi mhm. te loolu noonu dina tax bokk na ci li nga xamante ne da leen di pousser aussi ñu ñu ñu nit kooku mhm. les ñu si bëri tamit bu ñu demee ba yegg suñ leen laajee ban dëkk la ñuy jógee dañuy bañ sax wax dëkk yi ñu jógee mhm. ba pare pour ñu bañ leen delloo benn ñaa aussi dañuy wax ay dëkk yoo xamante ni dafa am nekk ay dëkk yuy def ay réfugiés jugé wala mu am ay guerre ak yooyu. dama damaa brûlé très Paris ba ma alkaati bi jàppee daf ma gënoon tudd ma ne ko Mahmoud Saleh. foo mu ma ne ko Mauritanie. waaw a jàpp wala bañ bañ a fee amal ko ma jàpp rek donc xale yi des dañ leen di jàpp. dañ leen voilà dañuy bañ a waaw wala ñu wax. ñu sànni seen passeport yi. dugg si gaal bi. parce que bu ñuy waaj a egg dañuy jël passeport yëpp sànni comme ça soo doo xam fan nañu. man de incité wu ma xale yi pour ñu dëkk bi du neex de. du neex euh, si loolu aussi euh, am na ñoo xamante ne dañuy wax dëkk yoo xamante ne dafa am jéeye c'est-à-dire ay pandémie wala wala guerre wala réfugié affaire yooyu bu boobaa am dafay am lois yoo xam ne dafay dañ koy teg boo jugee si genre dëkk yooyu duñ la mën a expulser parce que mhm. da nga nekk en situation de d' extrême affaire yooyu mhm. maintenant en même temps li indi euh, amalgame si dëkk yooyu par rapport ak accueil bi dafa am yeneen loi yoo xamante ni dafi nekk hmm. organisation internationale de de de la migration di ko di ko di ko définir <laughs> ak di ko régir mooy nit ki aussi dañuy protéger li nga xamante ni moom mooy droits humains processus migratoire droit de l'homme ak droit humanitaire hmm. donc état yi nga xamante ni nit yi dañ fay ñëw dañuy am ñaari problème boobu war a tranché hmm. benn war nañ respecter dignité humaine war nañ respecter nit ki éthique ak li nga xamante enfin Euh, li nga xamante ni moom mooy droits humains wam c'est-à-dire en tant que nit ñu war ko mën a recevoir mu nekk si yenn condition moo tax ñu leen yóbbu si centre yooyu jox leen ñu sangu jox leen ñu lekk jox leen ay affaires mm-hmm. mais parallèlement aussi souveraineté état bi day jouer mm-hmm. donc moom moo tax nag dafay balancer lu bëri am na nag état yoo xamante ni dañuy signer ay accord ñoom ak dëkk bi ak mm. convention mm. ñu ngi dégg xamaguma dëgg la ou pas ni que union dafa wax ni que par rapport ak fléau képp ku ñëw nañ ko delloowaat donc président yi nga xamante ni moom mooy dëkk yi nga xamante ni ñoom nangu nañ ko suñ mm-hmm. ko signé ñooñu migrants yooyu dañ leen di delloowaat si dëkk yi nga xamante ne moo ñëw te je pense que nit yi yooyu yëpp war nañ si bàyyi xel xam ne que droit bi ñu am tam pour tukki noonu la dëkk yi ñuy dem amee droit bañ leen a accueillir mm. wala am droit refuser leen mm. te loolu seen constitution ñoo moom seen souveraineté ba pare dañuy protéger nit ñi xamuñu fu ñu jógee xamuñu ci lan la ñu nekk xamuñu vraiment lan la mën a indi parce que France ñoom booy gis ñu am yenn problème yi dañuy wax ni que ils ont été victimes de leur euh, solidarité ni ñu ubbilee nit yi buntu ni ñu naturaliser mobiliser yu bëri peut-être instant yi am nañ yeneen problème. ils ont dit bañ loolu moom mënuñu ko bañ ndax monde ni toll même Union européenne bi bi ngay bi sax. Euh, affaire bi dafa ko dafa complexe même ñooñu day finance même gars booy ñi nga xamante aussi mooy garde côtière yee gars yi nga xamante ñooy kii parce que en un certain moment seen xaalis lañ ciy dugal. dañoo am benn budget annuel bu nga xamante ne wala mën yoo ay 10 ans yoo xam dañ ko ciy def pour jéem a euh, ñenn ñi ñu jéem a fexe ñi nga xamante ay réfugié lañ ñu am ay papier bu bien la ñu am ay papier ñu am ay papier yooyu yeneen beneen domaine bi mooy parfois dañuy boo gisee kaawu Grèce par exemple na ñu téye ay nit ci benn ay ay am lañ fu ñu leen garder di xaar euh, ba à un certain moment ne leen ne Union européenne seen xaaj bu dugulee ci ci yëf yi dañuy jéem a bàyyi booy yi ñu génn génn dugg ci fu fu leen neex donc ni jamono dañ leen utiliser parfois non moo tax bu ñuy wax parfois affaire immigration domaine boobu boo ci duggee dafay complexe trop. sa micro baa ngi immigré ci biir génn ko engrais mu ngi jël gaal gi di dem. dafay non day balancer. day balancer benn bi dañuy équilibre rek la ñuy chercher le la ñuy chercher mais non ça dépend de la politique étatique am na état yoo xamante ni ñoom seen politique moom mooy accueil moom mooy dañuy jiital humanitaire dañuy jiital li nga xamante ni mooy sauvegarde dignité des droits de l'homme ak yooyu noonu. Mm-hmm. mais am na yeneen état yoo xamante ni peut-être du ma tudd yu Europe yoo xam ne ñoo gën a extrémiste nga xamante ni ñoom. nit ñi sax xalaatuñu dem seen dëkk soo fa demee si frontière bi la ñu lay delluwaat ils sont carrés ils accueillent personne ils sont ñoom seen nationaliste plutôt que <coughs> yeneen kii donc ça dépend des conventions et de la souveraineté étatique comme ni ma ko waxee état bu ne booy gis sax ba pare ba pare may mun a en parlant de souveraineté étatique am na benn point juste bu ma bëggoon taxaw mhm. mooy le fait que am ñoo xam ne dañ lay ñëw ne la dama lay utal visa kenn mënul utal kenn visa soo amee papier yi nga war a am soo demee ambassade bi ñoom ñooy décider ndax xam dañu lay may wala mayuñu la te y a des yoo xam ne dañuy liggéey si kaw nit ñi di lekk ay million wu jàmbur mm-hmm. te boo paree dañ lay dawloo kese mënuloo ci dara day perte amul fenn foo xamante ne bind ngeen fa jox na xaalis mais il faut que les gens sachent que ñu xalaat amul kenn ku la mun a tey may visa ku dul waa mm-hmm. ambassade bi ak dëkk bi ci kaw nga am papier yi nga war a joxe yëpp mm-hmm. te loolu avant ngay dem ci euh, ambassade bi mi ngi ci site internet internet di nga am liste papier yëpp et de préférence su dee xam nañ am nga liggéey wala famille wala lu lay retenir si sa dëkk ah. en général soo demandé visa dañ la koy may ah, te léegi ñu bari domaine boobu tamit xam na immigration mooy tax ah waaye souvent kayit mat duñ la may mm. waaw mais loolu mooy ñoom ñoo xool rek ñoom ñoo xool de jéppee waa ambassade yi <laughs> parce que man moom xam naa su ma liggéeyul woon ci télé bi dinaa dem ci gaal yi non ñii duñu maye visa aussi des fois. après kii toog ci téléphone mooy il faut prendre les papiers ah, aller dans le site internet machin des fois tu amènes tous les papiers mat ah ñu mat après duñu la maye visa. waaw des fois sa yaram dafay daw seen tampon bu rectangle bu xonk boobu bu ñu ko defee se visa. parce que affaire bi rang bi koo dégg ñu ne bon voyage am na donc kii teg nekk ci ambassade bi il fait comme ça il prend des bon voyage monsieur. Bon voyage madame. Léegi boo ñu lekk sa 45000. <laughs> bonne journée monsieur. foo dégg bon journée rek xam nga donkoon jooy. dëgg la ba pare par cher xam nga lan moo gën a métti aussi boo gisee. bon voyage monsieur bon voyage madame. journée. bonne journée monsieur. par cher xam nga lan moo gën a métti en fait. à la limite gis nit yi stress bi ñuy àndal bu ñuy dem jëli ji seen visa c'est-à-dire dafay mel ni yow ah. sa sa na wala li nga xamante day mel ni examen voilà dafa dafa am naa ku baax ku ñaanalaate ci tukki yi fii la ne yoori yoof xaw ma wakaan ko mën sax jox leen ma seen pour pour en revenir à léegi ñu mais bëgg a dem taxuta mën a dem mën a dem ay tax a dem mm-hmm. euh, malheureusement ou je sais pas c'est réglementé mm-hmm. nañ ko nañ ko teg ci yoon gis nga loolu lu waaye tegul ci yoon tamit baaxul baaxul koy teg ci yoon rek et puis comme ni ni li Bijou doon wax ñi nga xamante ni dañ siy liggéey sax booy gis dañuy jouer jeu de mots mm. ay facilitation ay aide ay encadrement mais kenn mënu la may may fii man arrivé laa def fan yële kii loolu tam laa fay. nga dégg 4 millions 200. dinañ la jël si arrivé payé. <laughs> ah man dama sonn ci sensibiliser bi ay bu leen dem ak toog leen ku bëgg a dem na mais na ko teg si yoon kenn mënul kenn tere kenn dem nii na ko ñuy évoluer nii je pense que <laughs> sam samedi Youssou wax na ko kenn mënul tere dem nit ñi ndax nit ñi leen téye déjà nit dafa mm. am envie mm. à chaque fois bi di découvrir feneen ak feneen mais dañ koy teg ci yoon loolu la ñuy wax mooy mm. fexe jaar ci yoon ak yooyu léegi leneen domaine bi mooy ñun ñëpp xam nañu Afrique dëkk bu euh, continent bu pauvre la toujours nit ñi dañuy am yaay nañ suñu ressources yooyu beneen

léegi da ngay génn télé am ñaari émission ngay wax di naan leen nii. <laughs> naan leen naan leen ñaat noonu la mais li may leneen mi <laughs> ngi lay jaxase ak koñ. <laughs> ay lii lii yee fitna jaay la lay wax waa koñ bi très bien booy bi léegi. mais du loo ko mën a avant ñuy génn télé ñoo waa booy koñ gisoo ko taay day diw pour leer. di sol ay chemise ba pare indi ñaari di jox booy naan leen booy yi te premier solo la def nii solo bi ci kanam la. noonu la booy yow commencé nga changé de yow. waaye yow ay njaay la yoo xam boo demee xam nañ ñu la naan waa kon ñu ngi naan. déedéet missionnaire la je suis venu pour régler le problème de la maison. xoolal dina am ku woote naan li ma la doon Pape Cheikh sax wax na ko ko. am na ku la message naan sa borom dënd yi dikk dama ko café mu naan dafa sonn est-ce que xam nga ni coono laa jëlee ci vacances bi damaa bëgg à tout moment mën naa ci table bi. Serigne dafa metti ban heure lay jeex. <laughs> man à tout moment. non seulement deux semaines laa leen may banque leen seen baaraam. mais tous les jours ci deux semaines yi à tout moment mën naa tëdd ci tëdd ci table di nelaw. <laughs> maanaam ku gëmme ku gëmmentu. waaye yow ñëwal rek. na nga ñëw rek ma ñëwaat léegi ay nelaw nelaw. waaw na nga ñëw rek. <laughs> waaw d' accord na nga ñëw rek yow d' accord bi la. mais fii yéen yéen télé yi fii Sénégal yéen a ngi wane caméraman yeeg équipe technique bi yooyu wala tollagu leen foofu. 5 4 3 2 1 ngeen toll ba tey. consultation en direct lépp la ñuy wane régie bi caméraman yi mais caméraman yi dañuy nuroo tënnu. yéen nag bu ngeen ah. jógee sol seen yére Turquie jiiri sol bu dagam dem seere les sol bëti jabar di jox CP kii dem ci boutique impro yi yére ngeen fi nekkee Pape Samba Thiam moom taay. amul ah, taay moom moom macha allah. Pape moom. ah Pape taay loxoom yokku na. yow tamit maa ko ay dàllam. kakataar. jàkkaarloo. fii tey moo tax Pape amul pertement. amul pertement boobu macha allah. Pape mu ngi fi mu ne nii amul pertement. oui weekend star. weekend star voilà. Pape Samba Thiam à tou moment nii nii moom à tout moment mën na bàyyi def. changé na doxin xoola je te jure Pape Samba Thiam. du yéen a ngi fi. Mm-hmm. xam nga fi boo fi ñëw dix baaraam ngay indaale. Mm-hmm. boo fi defee deux ans m camion baaraam. Mm-hmm. yaa ngi dégg lii. <laughs> maanaam Pape Samba Thiam à tout moment mën ngeen ko dégg je <coughs> mais bon macha allah. merci euh, pour qu'est-ce la... que je disais je perds les. Je... ah oui on, on t'a pas remercié. merci on pour la consultance en direct. Ben on a merci, on a bien pris note. il faut il faut prendre note parce que. bu ngeen profité wul di bind. Mm. yi may wax. Mm-hmm. après ça. <laughs> mën naa tëdd di ci table bi. yow toogal rek ku gëmmeentu ni ku xam lu mu def Youssou Ndour. moo ñëw rek moo ñëw ni. yow da ngaa naan sama café bàyyi wooyi te foogoon naa ne boo wasinee di nga bàyyi. boo njabootee. meret bi yëngagul ba tey nga naan café jàmbur yi <laughs> ah e et pourtant ñu ngi woon ci débat bu am solo euh, ci mm-hmm. euh, mais on va pas en faire un débat mm-hmm. euh, Thioro par exemple tu as rencontré koo xamante ni mu ngi tudd Issa Fall mm-hmm. alors Issa moom c'est un jeune qui nous a un peu raconté son histoire ci immigration clandestine tenté na ko ñaari yoon tante na ko ñaari yoon te du tere dina demaat nee na nii nii dafa xaw a am gàllankoor ndax tànk bi moo nekk ma nekk ci Coro Mbaar mooy dafay sóor déontologie li journaliste quoi kër gi ñoom seen def la ñu ak déontologie ñaari phrase si ngom daal di nga am yooyu moom da koo respecté dafa xam éthique ak déontologie. et puis une chose boo xam ne après dama ko mujj seetlu ci moom nga ni Coro lu mu wax du ci delluwaat. déedéet. man kanfoori kankan laa. Mm-hmm. kii kanfoori bamban. <laughs> kankoori bamba. ah ah, ah. yow jëlal moo tax yaa Cheikh Diouf nee na ma xalaa dafa corox dafa dafa xurfaat. te kay waxuma la xurfaat lu la fa indi. il n'a pas le corona donc bal ma ak maa ngi maa ngi yaa ngi ñu doon waaje woon yaa ngi ñu doon waaje woon un jeune qui a tenté deux fois. te nee na mën na koo mën na koo tenté waat. Euh, si toutefois mu gisaat occasion une troisième fois. effectivement euh, bi mu joxe mooy désespoir. c'est le euh, c'est le seul mot parce que bari na loo xamante ne jàpp na ni moom moo ko nakari ba ñoom étant euh, jeune moom ak ay moromam yu bari mënuñu tekki. ci réew mi nga xamante ne fii la ñu bokk dañuy dem xool juste waxtaan bi ñu sekk ak moom on se retrouve juste après. dara lu ñu lekk amuñu dara lu ñu def. waaw ndax amoo tax licence bees yi ñu signé licence nañ ko dindi. bu gouvernement bi bëggee jàmm na dindi licence yi tant que mu ngi fi am mbëkk mi du fi jeex mbëkk mi day am chaque jour parce que mbëkk mi ñi ngay tëgg ñi ngay defar lébu yi ñoo koy def te lébu yi ñu ngi si dëkk bi parce que nag doo fi toog doo am lu sax njaboot lekk nga bàyyi ko fi dem de yaa ngi dégg man mii di wax ak yow mbëkki naa damaa demoon Espagne jógee Espagne dugg Italie nekk naa Italie ay at ñëw investir fii bi ñu investir fii tamit c'est la même chose. xam nga investissement dafa métti ñun géej jër lañ am amatuñu leneen gouvernement bi état dimbali ñu ngir yàlla ngir yàlla ak jëm ñu Rasuul laay sama tànk bi moo dam ma moo tax sama tànk bu dam moom ba day maa ngi si géej sama tànk bi ngay ni nii moo bàyyi nii bu tànk bi dam woon ba day maa ngi waxaat leneen du ma mbëkki nag damay bokk si ñi tëgg gaal yi ñi tëgg laay bokk man maay tëgg sama gaal maa yebbi sama mbaal ak si kaw tëgg sama gaal mu dem Espagne déggoo ma la wax xanaa si ñi tëgg gaal bokk non non boobu moom du ma ko mën a expliquer moom lool moom benn détail la xam nga xam nga tey jii ki bëgg dem ku bëgg dem man xaw ma ku bëgg a dem waaye ku bëgg dem bu ma wéree ku bëgg dem kay man yaa xam fooy jaar xam nga gaal bari nañ gaal yi tëgg bari nañ de dëkk bi man ku la wax gaal amu fi kuy tëgg hmm? xam nga fi ñu toll mooy suñu problème ñun licence de pêche yi licence de pêche nañ ñu dimbali ngir yàlla ngir yàlla ñu éliminer ko xam nga ñun géej rek la ñuy liggéey ñun liggéey lu lu géej géej lay am ñun fu mu toll nii ñun pour l'instant ñun li nga xamante ne ñun moo ñu mën téye moo mën a téye suñu rakk yi ak suñu mag yi ah accord de paix suñu signé nii ñu éliminer lépp buñ ko éliminer moom mën nañoo téye suñu ndaw yi ah lu ko may du jeex xam nga tey jii ki xam géej ki nga xamante ni si géej ju juddoo fi la yaroo fi la màggee yóbbu gaal Espagne du ko jaaxal kooku noonu dugg si ndox mi nii yóbbu gaal Espagne du ko ko def dara de waaye ki nga xamante ni nag xamul dara si géej kooku la yóbbu gaal Espagne di man kay sama tur kay dama ko wax si nii nag sama tur moom dama ko wax moom. waaw xam sama kanam léegi loolu du dara man Issa Gueye laa tudd dëkk Thiaré Géej. waaye man dama voilà donc moom mu ngi tudd euh, Issa Fall euh, c'est un jeune euh, boo xamante ni tenté na dem doxul mu tenté waat doxut nee na bu ñetteelu yoon bi mënee nekk dina tenté waat. effectivement dafa ñeme. waaw ah. dafa ñeme parce que ñoom dañuy yëngu ci wàllu napp. donc tey bu ñu lay wax dañ lay expliquer affaire yu bëri yoo xamante ni moom moo leen di nakari. Mhm. Euh, euh, par rapport surtout ak seen métier. dernièrement ñu ngi wax waxu ay licence de pêche yoo xamante ni dañu koy jagleel ay yeneen nit donc ñoom ils te bu dul chinois yi. tubaab yi lañ koy jox donc loolu aussi nekk loo xamante ne moom moo leen di naqari et dire que dañuy jël seen xaalis investir ko ci li nga xamante ne moom moo di seen secteur d'activité aujourd'hui état bi au lieu mu jàppale leen ñoom dañuy bëgg dañuy jël euh, teg ay yeneen nit yoo xamante ni duñu doomu réew mi ci seen kaw donc comme ñoom amatuñu issue ñu ëpp leen moyen également parce que ki am gaal borom bateau du moroomam pour de vrai donc voilà donc aujourd'hui ñoom bu fekkee dangay am benn 300000 benn 500000 def ko ci gaalu looco pour après ñu ne chinois bi wala nangam bi ñëw indi bateau mi ñu permettre ko mu napp jën yu baax yi ñu am yëpp ci dëkk bi dem donc ñoom loolu jàpp nañ ni désespoir weesoota ko mm. dañu am njaboot goo xamante ni moom moo leen yaakaar topp ah. seen ginnaaw ak ah. yëpp donc ñoom jàpp nañ ni tukki mooy la seule solution donc ñoom du moom par exemple moom Issa Sall xalaatul euh, teggi tànkam par rapport ak li nga xamante ni moom moo di dem ci wàllu immigration bi ñu ngi koy wax sànq ak may mën a aujourd'hui ku nekk da ngay jéem a ut explication mhm. man dama xalaat xalaat ba amatuma ma ne est-ce que le que le pays n'est pas possédé ñi est-ce que du ay jinne ñoo leen di dem la doo comprendre en fait parce que après euh, ci logique doo comprendre en fait parce que dama naan euh, quelque part tu te dis nit warul mën a ñàkk ba ñànki quelque part tu te dis waaye mhm. nga am naqar man suñu koñ presque xale yu bëri dañoo dem euh, enfin suñu koñ Euh, koñ sam sama fu ñoom pap sama pap dëkk Pikine ba Sénégal ay xale yu bari lu tolloog ay cinq personnes ci benn famille ay xale yu bokk ndey ak bàyyi ñooy ñooy faatu ça fait ça fait mal ah experts yu bëri di wax ne que actuellement le fait que ñu jël euh, jël ay plus de dix mille tonnes de thon mille sept cent cinquante tonnes de mel oh, ci suñu géej gi ça veut dire que ñoom bu ñu demee napp sa dootuñu am mu jën yi di wax wala immigration si si xam nga kii nii par exemple jën mooy xam nga kii nii. xam nga bu dee yow sa ah. liggéey. jën mooy liggéey doole ñëw jël si sa jën yi nga. après looy def yow am. après yow je pense que bu fekkee jox nañ leen 1,7 million de dollars franchement waroon nañ mën a investir si yeneen secteur d' ba jeunes yi liggéey wala bu ñuy signé contrat ak ñiy jëw napp si ñu defal leen close yoo xamante ne da ngay développé euh, euh, kii euh, yi village yi nekk ci côté yëpp mais bu fekkente ne nit ki li mu war a liggéey yow ñëw nga jël ko ba pare moom gaal la am ah, day dugg ci gaal malheureusement du secteur u rek parce que aujourd'hui bëri na ay entreprise yoo xamante ne wala ay boîtes yoo xamante ne ñu ngi fii ci réew mi mm-hmm. surtout dans le public sa papa moo fay nekk balaa muy retraité dugal taawam. balaa taaw bi di màgg ki topp ci taaw bi war a ci liggéey bi dugal ko donc c'est tout un nekk yenn man bu may bàyyi télé bi sama doom bi bu ñu dëgg c'est que bàyyi li nit yi di reproché bu njëkk ba la c'est jamais ñoom à l'origine rek la fi bàyyi li tax mu nekkoon noonu mooy nga naan ñëw am kenn ci famille bu mën a dimbali njaboot gi bu pas bi. effectivement mais loolu la doon def boo nekkee ci benn société nga woo sa doom. ñu jàpp ci mais loolu mais xam nañ ko teg xëj na ci compétence. Mhm. Euh, bañuñu ko yenn saa yi daan nañ ko teg ci compétence. Euh, mais léegi dama malheureusement keroog dama gis kenn ku bind naan mm. euh, France boo demee di wut liggéey dañ lay laaj CV. Amérique dañ naan la loo mën Sénégal dañ naan la ku ñu boole. Mm. mais Kaam wax est-ce que xam nga ni y a y a des entreprises qui sont là boo fa nekkee nekk cadre. yow soo amee boo walaa ngay retraité soo amee doom boo xamante ni dafa mën li nga mën wala mu mën a ñu mën ko embaucher da ngay am droit ñu embaucher ko te da si si effectivement en fait am na ñoo yoo xamante ne loo xamante ne vraiment luñ ko lu ñu réglé la bind ko teg man de boobu Ndour maa ngi ko bëgg a boole ak sama sët bi dani moom ku animateur la dama ko <laughs> ñun ñëpp koy def bàyyi leen ñu waay voilà donc donc donc aujourd'hui en fait en gros explication bi mooy jeunes yu bëri désespoir lañ lay jox comme alibi maintenant du du du du tax quand même ñu encourager immigration euh, euh, clandestine wala immigration irrégulière parce que man personnellement bokk naa ci ñi gëm ni nit saa bu ngeen gaaw lekk seen commentaire émission bi day jeex tekki fii c'est c'est c'est bien possible maintenant eh après il faut aussi ku nekk mettre la a à la pâte <laughs> euh, société bi dañu am seen wol à jouer parents yi ils ont leur rôle yi ci seen bopp ils ont leur rôle hmm. bi aujourd'hui ku nekk ci ñun yow yaa ko war a hmm. yow yaa ko kenn en fait voilà euh, merci Mathioro loolu ma daana la in Gambia hmm, euh, bu njëkk bi comme li xew fii nii Sénégal amoon na benn temps boo xam ne xewoon na Gambia euh, comme li ñu doon wax sànq ñi nga xam ne ñu ngi si public bi ñu génn comme ñu nit ci yi ñu génn artistes yi génn ñëpp join seen bopp ba am benn projet bu ñëw mooy cor euh, dafa wax sànq sama xel dem ah, ci euh, mooy tekki fi comme dëkk fi tekki fi euh, ci biir euh, réew mi waaw toog fi tekki fi exactly euh, xale yi di ci def lu parce que boo xoolee sax ñiy ñiy tukki léegi si yooni suuf bi gambien ni bareetuñu si comme avant comme niñ ko daan defee mm-hmm. ñu ñu ñu ñu gën a kii rek peut-être tamit gouvernement yi bu ñuy signé ay contrat with the um, United Nations ak yooyu mm-hmm. bu ñu jiital ñoom seeni ay stuff mm-hmm. nañu consider the younger generation nga xam ne five years after because li concentrate on mooy ñoom lu ñuy am at that moment buñ fàtte ne the younger generation ñoom ñoo si war a benefit loolu ñu bàyyi si xel rek mais mais mais mais euh, toog fii euh, euh, tekk fii c'est vrai que c'est un slogan ou une phrase bu ñuy dégg fan yi yëpp depuis que daanaka coowal dem bi bëri mm-hmm. am na ñu bëri ñoo xamee ni quand mm-hmm. dañ fee toog ba noppi itam euh, tekk fii c'est des influences am na ko ci taseel d'ailleurs effectivement Baye Cheikh comme ni ñu waxee rek donc moo tax sànq ma doon junj bii naan ku ci nekk rek war na ci mën a béy ñuy communiquer rek ñi nga xamante ne peut-être ñoom xaddi nañu comme ni ñu ko waxee ñàkk désespoir ba mu jaral leen ñu dem am na ñoo xamante ne tamit am nañ chance toog fi tekk fii ba tax na ñu mel noonu mun nañ ko wane peut-être dina junj keneen ki nga xamante ne amoon na astuut mun a def lu nu mel donc jot nañ ci euh, rencontré kenn koo xamante ne mi ngi wuyu tuturu Abidine Ndiaye donc dañuy def rek ñu àndandoo euh, déglu ko ñëwaat. woon na trop euh, en mille 2003 laa dugg si benn hôtel bu nekk si place fii di liggéey comme équipier def fa quelques années amoon benn salaire bu xawoon minime mais mu doyoon ma nag ma liggéey ba mille 2007 amaat benn chantier bu nekkoon euh, benn hôtel bu nekk sur place amoon fa sance di liggéey ba benn tubaab gis ma proposé ma tukki. ma xawoon bañ nag bañoon naa ba mu xaw ma sax chaque instant woo ma léegi sama benn copain topp ma yow dootoo tekki xam nga gis nga yoonu tukki parce que ak sama salaire ma amoon mënu loon comprendre ma ni man damay toog teewul ma ko ne dëgër bopp rek toog di liggéey di góor góorgóorlu jóge équipé dem technique topp si technique bi nekk responsable jóge si loolu euh, après kon ne samay projet di ku ne projet nànk-nànk ba dem ba temps bi daal may nangu mootu woon toog si entreprise ma daal di mujj négocier ñu bañ ma démissionné bi ma démissionné aussi metti woon na parce que il fallait que ma démissionné pour connaître samay projet te amoon benn financement bu jógee fenn amoon financement bu jógee may dem liggéey samay machine bi ma fayee ma ñëw xaaj xaalis bi benn ma dundee benn ma def samay machine si installation yi recherche yi ma doon def di ko financé nank nank nank nank di liggéey ba 2019 comme amoon naa ay brevet yoo xam te ni aboutirul parce que amul woon suivi ma defaat beneen brevet mais nag bii li ma may saas mooy que ni directeur u euh, tutelle bi nga xam te ni moo yor wàllu boobu muy grille grille d'avaloir yi mu daat koy gis daat koy approprier projet bi daat may woo ñu waxtaan automatiquement ñu commencé liggéey te bopp bu ñu commencé liggéey tamit ba tey gis na ni affaire yi jàmm la parce que moo gën li fi nekkoon ba pare moo leen amélioration yi ak rendement yi bokkul rendement bi am moo gën bële euh, boobu léegi nag ñu ngi liggéey di ko teg ci yoon ba instant bi daanaka foog naa commencé naa beneen projet ba sori na des fois ndaw dafa laaj orientation à bas âge mu am orientation xam fan la jëm te mën nga am yor ay millions te doo xam loo ciy def loolu day ça ça peut arriver kaaman li may def courage moo tax moo koy def parce que yombul dëkk bu mel ni Sénégal ñëpp xam nañ ni metti na mais ngay def ay effort di jël sa xaalis def la nga xamante ni amul benn garantie bu lay wan ni dina baax wala du baax wala ngay dóor si la nga xamante la bu nga ko si def mu perte am na nooy mel rek da nga koy téye te entreprendre nag moom daam lu koy indi foog nga ñemee di def lu may wax xale yi daal mooy ñu persévérer am am am ambition xam ni fii Sénégal suñ dëkk lañoo ko mën a defar te lu waay jéem yàlla na la si fekk si ñu góor góorlu bañ a jàpp seen xel ni ku tukkiwul doo tekki parce que ñàkk tukki tekki du ma tukki du ma bu ma tukki lu ma tekki loolu daf lay tëj parce que dootoo def benn effort buy tax nga def fi ay effort pour mën a financer xaalis toog te pourtant xaalis bi nga yor di ko passé am ñoo xam ne ni lu gën a bon lu gën a tuuti loolu lu ko gën a néew moom lañ démarré ba tey ay milliardaire lañu tey boo xoolee ñu fi nekk am ay milliards yëpp fu ñu commencé dañu amoon ay tolof tolof seen seen ndaw ñu gëm ni mën nañ tekki def ay effort ba tekki fii man dama gëm ni fii sama réew fii laa war a tekki fii laa war a def dara moo tax. voilà c'est un bel exemple euh, toog fii euh, tekk fii defe naa ñu bëri bu ñu génnee mhm. euh, joxe seen parcours ak fi ñu mhm. jaar même bu fekkee nit ñi dañuy xaw ragal cat mhm. waaye defe naa toll nañu foo xamante ni baax na baax na ñi ñi nga xamante ni ñoo fi toog te tekk fi nekk ay ndaw waxtaan ak ndaw ñi wax leen nii euh, que c'est possible que c'est possible Baye Cheikh il faut toujours s'armer de li nga xamante ne moom moo di courage parce que bu fekkee ne am nga courage am pas-pas tôt ou tard rek bañ a dina mos a ñëw moom sax on peut dire qu'il a de la chance parce que peut-être yàlla wërsëgaloon na ko muy liggéey fenn déjà amoon salaire mm. waaye am nañu bare ñoo xamante ne ñoom ñu ngi fi liggéeyi ñu amuñu dara mm. mais seen as tuut nañu tàmbalee dinañ ci ñëwaat du ñàkk ñu wax ko waaye comme moom ni mu ko waxee amoon na wërsëg di liggéey fenn mm. mais donte li mu doon tuuti na bu wàccee léeg-léeg mu daw sumbe nekk ak benn frère am dóora dóor tuuti jékki saay bu toogaatee leneen jéem nag dafa nekk am nit koo xamante ne dafa am chance parce que moom dafa mën a li nga xamante ne moom moo di di tripoter di créer ay yëf euh, ba ci roona la créer ay euh, en 2006 temps yi nga xamante ne euh, problème ki problème mu courant yi je pense que c' était en 2012. bi problème mu courant yi amee fii donc moom mu nekk di créer li nga xamante ne benn éolienne nekk ci donc ci noonu moom moo ko doon jox courant guddi gi après mu xëyaat tuuti créé waat li nga xamante ne benn vélo de sport boo xamante ne dafa doon produire courant guddi gi euh, mu nekk ci voilà celui qui l'a créé mu dem nag ba am mm. chance nit yi gis ko mm. projet ba léegi jël ko jàppale ko mm. muy liggéey waaye comme ni ma ko waxee y a des gens yoo xamante ne ils n'ont boo gisee tey fi ne nii ci internet bi am na benn challenge boo xamante ne ñu ngi koy def des jeunes yoo xamante ne ils n'ont commencé avec rien du tout comme par exemple toog fi tekk fi lancé nañ ko mais ce jeune là comme 6.9 tamit mën nañ ko citer parce que dit que moom il a juste démarré avec francs donc c'est vraiment fort lu ne mel aussi baax na pour wax ne lépp loo munti am rek mun na la dimbali comme par exemple docteur Chaye tamit moom it jot na wax nee na ki la dépend ki la commencé avec 12 euh, francs bi bor la ko defoon te macha allah léegi ci réew mi ñëpp ngi koy gis donc beaucoup d'exemples yu ñu mun a citer mooy li ñuy wax rek il faut qu'on les montre. il faut ñu wane leen ba pare ñoom ñu nangu ñëw wax parce que souvent mhm. da ngay leen di contacter dañuy ragal ñemewu ma télé dugg na fi génn fi mais yaakaar naa ne fi dëkk bi toll nii nii mhm. ku ci nekk da nga ci am part de responsabilité. on a souvent pris l'exemple lu suma papa Babacar Ngom mais problème mu dégg leen moo tax xale yi xaw junni beeg dañuy jël euh, toujours exemple. oui dañuy am toujours euh, jël toujours exemple. exemple il y a beaucoup d'exemples. non il faut qu'on les mette en. et puis il y a quelque chose que Youssou a proposé je sais pas. si la télé oui, suivre mais il a proposé que chaque semaine ñu jël cinq minutes may ko benn jeune entrepreneur mu wax si parcours am ce qu'il a incité et tout dafa dugg ci yëf yi voilà c'est bien c'est des exemples on va faire des exemples on va on va dinañ mm. comme niñ doon wone influence yi euh, dégg man influence nan la euh, affaire boobu voilà liñ doon wone initiative euh, y a beaucoup de jeunes quand même yoo xamante ni mën nañu leen jël exemple c'est juste pour sensibiliser gisee. voilà yàlla baax na. xale yi nañu bàyyi xel tamit ci wërsëg. tu sais wërsëg dafa am solo oh. itam nañu nañu gëm yàlla des fois te bàyyi xel ci wërsëg yenn saa yi nga xëccu comme defe naa aw moo ko may yenn saa yi nga xëccu loo xamante ni bu ñëwee rek du la ji c'est-à-dire jour bi mu ñëw ci ngay dee wala nit sax Pape Cheikh day ñu tuddee la loolu nekk à sa wërsëg parce que dégg naa que dégg naa parce que dégg naa même sàcc li muy sàcc sàcc bu sàccee deux millions sax yàkkamti wërsëgam je sax fekk mu nekk wërsëgam bon on veut pas faire de débat euh, bëgguñu ko def ay thème di mel ni dañuy joxe ay leçons euh, mais on avait choisi cette partie euh, dans la bonne humeur waxtaan waxtaane loo xamee ni euh, moom la àddina di waxtaane lu fi ay di jàmbat euh, tubaab yaa ngi ñuy waxtaane euh, ñu nit ñu ngi waxtaane suñu biir ñëpp a ngi wax wax naa ni xalif général kullu murid Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te ko ku ci kaddu Serigne Bass Abdou Khader moom it yàlla na fi yàgg te ànd ko ku wér am na déclaration boo xamee ni def na ko xam naa daañ ci ñëwaat ak rédaction bu télévision Futur Média intégralu déclaration bi jëm ci ñaax gi muy ñaax ndaw ñi ngir ñu moytandiku te bañ di xaru euh, bu ñuy dem ñu teg ko ci anam yu wóor euh, mën ngeen ko euh, déglu ci suñu site internet di www.igfm.sn 10h25 bu 11h jotee bu ñu laalee di ngeen ànd ak Amina Poté elle est en train de se préparer pour gunge leen ci yeewu leen plus bi bu ca kanamee dinañu nañu ak Awa Gaye ci li nga xam ne ni mooy women of the week puisque chaque semaine ñu tànn jigéenu jàmbaar y a des yoo xamante ni itam ñu ngi jël gaal yi di dem. Euh, ci yeneen i dëkk euh, ñooñu euh, itam dinañ leen wan ay jigéen yoo xamante ni fii la ñu nekk ci dëkk bi tekk fi mais nekk ay jàmbaar te kenn du leen ne bu ngeen nekkoon ay góor bu ca kanamee dinañu dem seeti Fatoumata Fall moom entrepreneur la école ubbi na am na ñu ubbeegul am na ci ay parent yu bëri yoo xamante ni sax euh, voilà ñii am nañu confiance par rapport ak euh, coronavirus bi ñii amuñu confiance ñii am nañu moyen ñii amuñu moyen donc dinañu waxtaan euh, ci li nga xamante ni mooy rentre des classes bi surtout problème yi nga xam ni moo am fan yële entre privé yi ak parents yi parce que am na ci parent yu bëri yoo xamante ni quand même fay nañu te seen i doom seen i doom jàngiwul am ci itam ay écoles yu bari yoo xamante ni ñu ngi loon doon fay et ñu ngi doon def ay cours à distance Euh, c'est un couteau à double tranchant maa dégg tubaab ah c'est un couteau à double euh, tranchant ah mais on en parle tout à l'heure ah à l'heure Pape Cheikh parce que ba léegi am na xale yoo xam ne jàngeeguñu ndaxte euh, école privée yi dañuy exiger parents yi fay leen trois mois yi nga xam ne dañ toogoon jàngiwuñu ko ci période coronavirus bi voilà et puis balaa Mame Fatou Ndoye di détailler lépp loo xamee ne jëm na ci wàllu tàggat yaram tey ci guddi dinañ ci waxtaan ñun tey balaa ñuy jeexal yeewu leen bi dinañuy waxtaane présidence Euh, bu CAF. Euh, maître Augustin Senghor il paraît que euh, ak yeneen i info sport par exemple Sénégal première nation bu qualifié ci prochaine Coupe d'Afrique bu en attendant tout ça on va se une petite pause Viviane toj jardin des Almadies samedi dernier. j'y étais ah de laa toogee. Viviane di ma wooy ma silbissé. waa Pape yow message ma dina laaj. nii da daa toogee ñu may filmer sol lu rafet. ñu naan ma li nga sori dafa rafet sama pyjama laa génne en fet je suis un peu plus. tu li dal li dal Pape Samba tu as les images. essaie d'illustrer ça regardez. lii toj na. moo tax bi ma jëlee micro ba tey di yàqal animateurs yi wax lii benn baat laa wax Viviane. dama ko ne yaa na ne yaa ak lii rek laa wax je te jure ah soirée bu neex silvissé lekk ya bëri am classe Viviane rafet boo ko gisee da ngay foog ni treize ans et demi la am mu ngi kii maa xam lu tax ma jël ko moo tax fan ne nañ moom laa jëlanteel ab de la jël léegi maa tey ku gis lu baax ngoy ca koo xamante maa ngi pii sama laa yoo tam eh, Pape Samba bu dee mën nga li nga mën zoom ma comme ni ñuy zoomé portable zoom ma wala nga filtre ma zoom ma Pape waneel lii bu ma wanee nii tey dama damay doog a yeewu daal nii rek laa demee keroo te xoola dama as taay lii laa xewal de assorti bu ngeen seetloo yére bi marron bi dama ko dama ko njëkk a indi ci biir ba pare ko ci kaw dëgg la tey vert yi laa boo gisee vert bi ci biir bokkul ak ba tey vert bi ci kaw te ba tey bokkul ak vert dama ko toroxalee ak dàll yi <laughs> dama nga toog. léegi ñii lu ñu fo. dama nga toog. deux semaines ngeen di am ci man ak Pape wane maa tam soirée bi yow tamit maa ngi fóon. lii lii xam nga ni Sénégal ba Sénégal daj. dama nga toog rek ko fi dem day animé bi ci ak tegtal. poussière ban. oui ma gisoo sama oto bu bees bi nga dof. dama nga toog waaw. benn ñaari baat ñaari phrase bi sama déplacement bi yëpp na xoolal. ñaari phrase ñaari phrase rek Viviane waa dégg nga zoom nii xam nga. vraiment petit yokkal jaf bi ma gën a leer. ñu xam ne bitim réew laa jóge ñun bu ñu demee vacances dañuy diw tuuti. boo <laughs> romb père Assane ma njëkk ne waa mais fils. vacances yi dig na loo. ma ne ko xam moom vitamine. <laughs> léegi. Hmm. non mais j'ai aimé la soirée Viviane c'est-à-dire c'est une vraie reine. c'est-à-dire regardez sa robe non seulement la robe elle est belle c'est-à-dire Viviane taxaw rek bokkoon ba muy neex safkaani yaa bokkoon ba muy neex safkaani yaa bokkoon ba muy neex safkaani yaa bokkoon ba muy <laughs> demal nga toog demal nga toog demal nga toog Amina Poté gi préparé pour euh, béggee leen à partir de 11h donc déglu nañu tuuti ci Kiné Lam bu bees bi euh, xam naa dinañ ci ñëwaat parce que man du ma doyal ci ay mbir ay mbiram euh, Pape Diouf moo ci topp on mettra bu ñu ko tegul ci yeewu leen bi rek teg ko ci yeewu leen yeewu leen jiis bi. ah ak Amina Poté euh, sinon Mariem aussi elle attendra peut-être jusqu'à demain matin en première partie euh, dinañ leen ko tegal ñu ciy nuyu nag bu baax euh, ki nga xam ne ni mooy euh, madame Mbacké soxna Naata Samb bu fees yàlla na jàmmam yàgg di ndokkeel tamit ki nga xam ne ni mooy Oumy madame Dieng nekk Paris Kor Am moom suma xarit la suma jigéen la jigéenu Mbay Ñang ak nabu Camara yaayu Maam Sala Oumy je t'embrasse très fort tellement vous me manquez maa leen di ziar bu baax euh, di ndokkeel itam madame Fall euh, Fabi euh, moom itam elle est très contente de me revoir à la télé Euh, voilà donc Fabi madame Fall elle fait partie des marraines de cette émission moom ak Adja Jaxate euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax Sophie tu nous manques c'est-à-dire Sophie euh, sa loxo sa sa loxo bi nga chirurgie esthétique dugal ci ay kaaneeg poobar ak limon ba tax loo togg mu saf sàpp euh, loolu man vraiment laa namm ci yeewu leen bi donc Sophie namm nañ la torop ñu ngi lay fóon di nuyu nag sama Adja Lo Asa Bombe Adja Lo sama Adja Lo alors Adja Lo je t'embrasse très fort borom de voyage bi nga avion surtout business class yi man <laughs> saa yi ma jaayee billet d' avion nii laay def Adja loolu mooy bandi Adja yi la may defloo ci avion yi nii rek te damaa bëri maanaam mën a wone wu yii laay def grâce à Adja Lo asa rek yi Tamba gi ma doon dem Adja nii la may defloo ma ne ko Adja mbaat danga maa bëgg def États-Unis de laay toogee ba France nii laa toogee ba Amérique de yenn can I have some water please. <laughs> ndaw Ajaalo moo soof. Ajaalo <laughs> maa ngi lay fóon bu baax je t'embrasse très fort yàlla na sa jàmm yàgg euh, di ndokkeel itam euh, Mati Mati mooy chéri Xaadim Xaadim euh, futur ex Viviane la voilà Xaadim maag moom ma yam dañoo nopp Viviane mais malheureusement dañ yaay lañ ko def quoi wala wala sister mais Xaadim chéri Mati Mati mooy officiel. Euh, mais xam naa mun na mun na ñaareele sama yaay kaaw te xam naa bu ñuy takk sama yaay moom dinaa def ni ka ni koy papa gay xaar de ah, imagine sa yaay muuru comme li xale yi def heure ménage boobu ballon yi ñuy bind ba pare muuru <laughs> sama yaay war a muuru dañuy takk sa yaay eh. <laughs> loolu de mooy e eh, ba idda jàpp la <laughs> Ajaratu Abisatu Dioum Abi Dioum euh, depuis Italie on l'embrasse très fort donc Ajaalo ñu ngi lay béggee bu baax Xaadim ak soxnaam euh, euh, di suñu jigéen Mati ñu ngi koy béggee bu baax Ndey Mariem borom Dakar Afro c'est la grande royale moom force tranquille laa ko tuddee Cortafa Ndey Mariem Dakar Afro ñu ngi koy béggee bu baax vraiment ñi ma bëgg a lim yëpp suma limee damay juum xam naa ni namoon ngeen ma xam naa ni seen xol ngeen ma def xam naa ni lu ma def saf leen ñu ngi bëgg a yàgg nag man ak yéen bi ma amee fukki at ak ñaar ba tey donc loolu defe naa neen mënu koo yàq euh, moo tax at yaa ngi bëgg a bëri commencé na maa béjjaaw sax fépp laa béjjaawee pour votre information mais terewul je ferai le maximum pour vous faire plaisir même si de temps en temps nit day soxla boppam donc j'avais besoin de moi et c'est pour ça que j'avais pris quelques jours mais je reste juste quelques jours encore et puis je retourne chez moi dans mes appartements à Paris euh, euh, pas à Paris à New York. à New York <laughs> yeah, I don't like Paris et puis j'embrasse très j'embrasse très fort euh, sama xarit bi nee na yow buñ la namee benn yoon ngay ñëw ñu doyal. dëgg la eh, waxal na yàlla de. kii kan la dama ko bëgg a ñëw. mais léegi dama bëgg désormais dama leen koy imposé parce que yéen xamu leen ni seen patron la. Ah. vous ma respectez pas. dina ba am na tapis ak rideau su ma nee nii rek wax leen Adjalo voilà parce que Adjalo moom moo ko tàmbal. et puis euh, j'embrasse Adjaratou Rama Diaw sama rakk mhm. Rama Diaw je t'embrasse j'espère que ça va Rama. Oh, ah eh, bu ko tudd man maa ko tudd man kese Rama I phone you ok Rama borom délice délice et puis j'embrasse très fort. Euh, Marie-Louise Ndiaye euh, journaliste investigatrice à l'Observateur entreprise boo gis day am ay xarit euh, Marie-Louise Ndiaye elle fait partie de mes amis Adjaratou Awa madame Seck journaliste groupe Futur Média RFM borom RFM santé Awa Mbaye très très fort kontaan naa di tamit Feuz Garsen borom live yi Feuz arrêter <laughs> bàyyi leen Pape Cheikh la moom jabaram ñu ngi <laughs> ma ne ko Feuz yaa ngi Mamadou arrêtel elle est adorable Feuz yaay Younes euh, ak Pape Alioune ak euh, euh, ñu ngi koy béggee moom mu ngi nekk France Fama Thioune que nous embrassons aussi moom tamit ñu ngi koy nuyu madame Sarr neex a fekk mbuur moom tamit ñu ngi koy nuyu Numbe Fall nekk Allemagne moom tamit maa ngi def comme Youssou Ndour ak Amina Poté de <laughs> mais tey wu ma ay kër ay kii laa soxla ay lan mburu ay miisu mburu émoticône yi ay émoticône xam mi naa peut être laaj ay émoticône man ay miisu mburu laa soxla euh, ci euh, Facebook live bi j'embrasse euh, euh, très fort euh, Euh, elle est en de nous regarder moom tamit c'est la sœur nanu euh, bu père Idrissa Diop euh, maa ngi koy bégee bu baax fàttewuñu maman moo la ba Soda kase sama mbokk taalibe la moom ñoo bokk Cheikhul Khadim ku tedd ki ñu ngi koy bégee bu baax Oumy Ndiaye London suñu xarit ñun ñëpp haay maa ngi la deewoo maa ngi dee kiis bijou maa ngi dee nuyu Mamadou Ndiaye maa ngi dee xool nan la Corombaar Ndiaye def maa ngi ziar Awa Gaye nuyul ma Mado moom elle est adorable she's <laughs> Euh, Oumy Ndiaye euh, London ñu koy déggee bu baax euh, Mbayang Guène ça c'est ma petite sœur elle nous regarde depuis Paris Maodo Malick Yacine Pouy vraiment ku lim Dioum merci en tout cas pour ces beaux messages d'encouragement doole jël ndox donc yàlla na seen jàmm yàgg kontaan na ma lool ci yéen yaa Cheikh Dioum moom tamit ñu ngi koy béggee fàttewuñu sama yaay madame Diop Euh, moom moo àndoon ak euh, Cheikh Ba Codou Fall euh, Cheikh Ba Messi donc moom ñu ngi koy bëggee sama xarit Gris Bordeaux c'est mon garde du corps yeboo nag seen tooñ yi <laughs> yamale leen ko ci mbind mi rek Gris moom nee na xeelu sax si ci la bokk waaye neen du xeelu moom moom nee na Bijou Ndiaye lay xaar mu yëkkati làmmiñam bi rek dugal ko ci man ne yow du la dóor yow day dem du xam nga Bordeaux xam nga Bordeaux soriwul ak Montpellier day wàcc Montpellier rek am ku mu defal affaire rek dellu si waat Dakar <laughs> Gris Bordeaux maa ngi lay bu baax <laughs> moom suñu xarit la et puis euh, fàttewuñu ki nga xam ne ni mooy Biggi euh, mooy pata bi nekk seen TV mais c'est moom petit frère voilà sama rakk la sama jarbaat la sama doom la Biggi euh, ñu ngi koy béggee bu baax Isma Ndiaye bàyyi Binet et puis sama yaay Fall di Awa Cheikh Euh, moom tamit euh, ñu ngi koy euh, bégee ku lim juum en tout cas au fur et mesure ñuy dem dinaa leen yónnee ay ziar ak ay bégee yu bëri ndax kontaan na ma lool lool lool sax 10h55 lu ma leen waxoon. bu ngeen ma toppee. dina am lu dul jàll. comme bisu yaay laa gën a yàpp moom mooy ñaaw yaay moom. dañuy dem rek ci woman of the week jigéenu semaine bi balaa ñuy tàggatoo ba di leen bàyyeek Amina Poté ma ngay def échauffement tey dafa def <laughs> Amina. da da jiital bi laa bëggoon wax jiital bi kuy saar bi nday xadi ñang waaw jiital boobu nga jiital bi laa jiitalu amee bi di ngeen ko gis léegi nii jiitalam bi di ko gis léegi nii bu 11h jotee en direct ci télévision Futur Média comme ça mu béggal leen ba midi euh, ci télévision Futur Média je me suis répété c'est ça je me suis répété voilà donc Awa I love you so much. I know that, and I love you too. Mrs. <laughs> Lai. Mrs. Lee. <laughs> Yeah. tey dañu dem seeti Fatoumata Fatoumata Tall Fatoumata Fall. yeah. Uh, entrepreneur. yeah. mu euh, the uh, president of euh, REJAF euh, bi nga xam ne it's um, female li nga xam ne female um, entrepreneurship group fii nii senegal mu doon seen président dañu dem seetaani ab waxtaan bi ñu am ak moom and suñu dellu see ñu gën a yaatal. salaamaaleykum maa ngi tudd euh, Fatoumata Fall maa ngi kontaan ci la ngeen ma seet si tey bon sama story ni ma koy waxee mooy euh, fara jàng liggéey tuuti Sonatel liggéey tuuti Makkan après liggéey BITS benn société informatique après euh, après yàlla def ma gañ benn marché ubbi société léegi nag ñu toog ñu waxtaan man sama ay quelques xarit moom leen ne leen dama bëggoon créer REJEF réseau des jeunes femmes entrepreneurs xool ay femmes entrepreneurs yu mel ni ñun mais boobu suñu but lan la woon moo doon euh, fexe ba ñu euh, respecter jeunes femmes entrepreneurs parce que temps yooyu bëriwul woon léegi doon la woon on ne prenait pas trop au sérieux léegi looloo indi woon nag euh, création REJEF bëriwuñu woon mais société 2006 lañ ko créé mais 2012 lañ def lancement bi nag fii ci chambre de commerce ak suñuy parents yu ñu jàppale woon mu doon président chambre de commerce ak euh, président CNES ak euh, ministère ministre de la femme de l'époque mu doon Mariama Sarr mosuma jàng entrepreneuriat dinaa la wax nag lu dooy waar informatique laa jàng jàng mais bon xëy na sama famille sama maam jaaykat la woon sama papa douanier la sama la ma nekkee xale daal xam naa ni daal naa organiser ay kermesse di leb sama papa xaalis bi ma amee ay 12 13 su ma ko daan leb 10 000 organiser kermesse ci koñ bi après ma gagné ay 25 000 delloo ko 10 000 la donc dama teel a am euh, fibre entrepreneuriale ñoom tam ñu jàppale ma ci nag wax dëgg yàlla. bon en fait dama xool euh, suñu environnement Sénégal ma gis ni daal jigéen ñi euh, ñu baal ma nag néew ma dañoo bëgg lu yomb ne. sénégalaises yi en général léegi nag loolu nag jeex na mais période boobu peut-être il y a 12 13 ans 14 ans ak lii bokkul parce que léegi gis naa ni xale yi jeunes filles yi dañu màgg ak euh, intention ñafe mais temps yooyu bëriwul woon waaw am nañ ci doon jàng dañ doon xalaat xëy na dugg ci administration nekk fonctionnaire euh, entrepreneuriat bëriwul woon wala tamit xëy na jigéen da doon gën a xalaat dem sëyi xam nga ak leneen même ci góor yi sax ñu ko ñemee bëriwul parce que y a beaucoup de risques. bi ma yàlla booleeg euh, Ousmane Wade mu nekkoon sama directeur BITS BITS bu doon amoon na temps yooyu ñaari société informatique yu fi tegoon tànk BITS la woon ak ATI donc yàlla def mu dugg BITS donc euh, ku ma njëkk def affaire wu euh, objet promotionnel mu dugg ci affaire wu cadeau. voilà donc mu nekkoon. Euh, koo xamee ni moom la ñu tànn def ko jigéenu semaine bi comme chaque semaine d'ailleurs chaque Monday ak euh, Awa Gaye euh, mm-hmm. moom jigéenu jàmbaar la ki ñu ñu seeti tey jigéenu jàmbaar la ndaxte li mu jàng ak fi mu nekk tey is very different dafa jàng li nga xam ne mooy um, information technology xam nañ koy waxee ci français mm. ah yeah so uh, loolu la uh, jàng ba den uh, mu mu ñëw def li nga xam ne mooy femme entrepreneurship mm-hmm. ndaxte moom nee na depuis bu mu nekkee xale mm-hmm. daf daan jël xaalis si papaam defal mu jox ko mu lebal ko genre mm-hmm. and then mu def si dara su pare mu delloo ko waat ak yooyu donc loolu mu nekkoon loo xam ne daf ko yàgg def depuis mu nekk xale so bi mu magee gis boppam ci li nga xam ne mooy femme entrepreneurship nekkut loo xam ne daf ko bettu lool ndaxte dafa mel ni comme xëy na loolu doon la bu bu nekkoon si moom euh, waaye lu ko gën a poussé pour mu euh, def euh, li nga xam ne mooy mu lu tax mu gën a jàppale am jigéen ñi bi mu créé society bi in 2006 waaye 2012 la ko lancé am mm-hmm. officially mu am si ay jigéen yu bare bare moom sax mënut a lii ñaata jigéen ñoo mm-hmm. bokk si association bi waaye am na close member membership of 15 people ñoo xam ne ñi ngi si office bi ñoo xam ne ñoom ñoo nekk de executive um, uh, members yi mais mun a bokk ci um, seen mm-hmm. organisation moom tamit tamit yow tamit yow part of uh, the um, female uh, entrepreneurs in in di leen di di leen jàppale di ànd ak mm. ñoom uh, ci seen ay forum yu bare bare mm-hmm. Pape Cheikh li nga xam ne mooy différence su commerce ak entrepreneurship mm. Euh, xaw ma ndax ndax ñu bëri xam nañ euh, différence su euh, commerce ak mhm. entrepreneurship commerce mooy comme jënd jaayaat but mhm. entrepreneurship mooy jàppale nit ki pour mu innovate si li nga xam ne loolu la muy mhm. def mm, ak façon business bu mun ci doon ñu jàppale la si pour su ko defee mu mun a jur nga mun a jàppale yeneen jigéen moom nag mu jiite am gérage bi nga xam ne ah mais mun a ci la bokk ya waaw bon Régef moom dafa euh, nekk réseau des jeunes femmes entrepreneurs REJEF voilà donc euh, euh, Fatoumata Fall comme tu l'as dit c'est une femme boo xamante ni la a commencé l'entrepreneuriat mm-hmm. très très tôt à la vingtaine et tout xam nga donc tey bu ñëwee jiite réseau bi nga xamante ni presque c'est c'est c'est euh, l'un des plus puissants au Sénégal mu euh, am ay jigéen yoo xamante ni ku ci nekk am na loo jàpp may jàpp ni peut-être elle a l'expérience et l'expertise parce que tey jigéen wala euh, soo ñëwee nga ni ngay encadrer réseau boo xamante ni nit ñi si nekk da nga leen di aider à entreprendre yow sa bopp yaa war a njëkk nga boo leen di conseil nga xam loo leen di wax fi ko opportunité yi nga am nga mun leen ko jox je pense que voilà elle uh, mu nekk koo xam ne dañ ko recognize am um, internationally uh, the mm-hmm. United Nations respect ko torop mm-hmm. Uh, mm-hmm. si li nga xam ne mu ngi koy taxawu jigéen ñi ndaxte li nga xam ne mooy poverty mooy ñàkk bi nga xam ne jigéen ñi peut-être si ñun jigéen ñi lay gën a metti parce que kër bu toogee amul dara ñun ñoo koy gën a yëg parce que ñun ñoo nekk si kër yi mu ne loolu dafa am pour dàkk nu muy dàkkee nag du ma ne dama lay jox xaalis pour ne da dem jaayaat ak noonu non I will help you. Euh, nga jéem a structure comme euh, instead of mu jox la ay jën. daf lay jàngal nu ñuy jën and then euh, pour nga mun a napp en nga am um, njëriñ sa bopp baay xam naa ne temps bi daf ñu gàtt tic dañ doon gën a élaborer ci suñu woman of the week Fatou Mata Fall yeah <laughs> yeah yaayam ndax Fatou Yacine Fall laa moo meññi tey sama baay te mbokkam la waaw moom moom lii bu ko defee daf ko war. kon yow bokk nañ de parce que man bokk naa ak moom. Hmm. ah moom war na la ko wax sax moom yow xam nga ni man bokk naa ak moom wax na la ko. Ah, ah dëgg la. tey man de dama ragal ñu lokki ma sax. non non non duñ la lokki mais jàmbaar la. je veux dire que nii la mel. parce que même boo seetee sax tey bu ma limee. Ah, euh, Pape Samba coupé ma micro madame s'il vous plaît. Ah, non non non non non je suis pas d'accord. Eh, eh. Je défends Mado en direct. ñëw. mais am na kumbukaay temps yi. waxal. Mado Paaw. problème la ñu moom. est-ce que xam nga ni Amina Poté bu moytuwul ci boppam mooy démissionné moom dina animé nekk wax ci télé bi ba mu yàgg Youssou mi moom téléem bind lettre. def ci ay copie yu bari séddale ko personnel <laughs> objectif je démissionne ndax Amina Poté <laughs> allez merci Awa Gaye je pense qu'on va finir cette émission bëggoon nañu continuer waat ba ci kanam on a juste voulu vous faire, vous faire plaisir tout en vous montrant quand même euh, de choses sérieuses euh, ñu euh, jeexal à 11h04 ak euh, yenn ci ay messages yoo xamante ni jot nañu ko bu njëkk bi message yu ku réer la ñu bëggoon quand même wan leen photo bi bu fekkee possible possible na avec la complicité de Pape Samba Thiam, futur agent de la RTS. Euh, donc, euh, qui, euh, c'est une personne, c'est un enfant qui a été enlevé euh, devant euh, son domicile. Voilà. mu ngi am huit ans pourtant xale bi ngeen di gis huit ans la am mu ngi tudd Fanta Keita euh, elle a été enlevée samedi maanaam samedi lañ ko sàcc ci seen buntu kër ñu ngi ñaan ko ko xàmmee ngir yàlla nga jàpp ci. ah fii waroon nañ di def ay alerte et tout ça yu gën a voilà kon utilise c'est vrai que je vois des gens utiliser les réseaux sociaux quand même euh, pour di wax ay nit réer nañu et tout ça euh, mais j'aimerais que que ñu gën a yokk attention ci xale yi ñuy sàcc xale yi di di réer puisque c'est des trains qui arrivent à l'heure quand pour que seen ay mbokk mën leen gaaw gis donc ñu ngi ñaan ku ko xàmmee rek mm. nga contacter peut-être police wala ay mbokkam wala nga indil indil ñu ko fii ci télévision Futurs Médias mais daal mu ngi am huit ans samedi bi la ñu ko enlevé Euh, ca Thiaroye sur mer devant son domicile góorgóorlu leen ngeen gën di surveiller xale yi euh, mm. parce que léegi nit ñi euh, dama foog ni gëmatuñu yàlla mm. waaw nit ñi dañoo sadik léegi à un point boo xamante ni seenu coxor foo ko romb rek jéggi na jéggi na dayoo des fois tu as l'impression sax que maintenant nit ñi c'est des drogués parce que font des choses yoo xamante ni kenn mënu ko comprendre donc enlevé devant son domicile samedi à Thiaroye-sur-Mer ñu ngi ñaan yàlla nit ko di nuyu suma xarit euh, Makan ça c'est le grand coiffeur euh, des stars ñu ngi koy béggee bu baax personnel bu boutique euh, Princesse Sophie suma jigéen suma xarit ça c'est la petite maman madame Diallo Ami Dieng Euh, madame Amadou Amadou Diallo euh, neex a fekk New York donc Ami Dieng ak personnel bu boutique Princesse Sophie ñu ngi leen di nuyu Mimi Curtis animateur à King FM. Euh, moom itam ñu ngi koy euh, euh, béggee bu baax mbokk ndeyu Lisa Dior Dia pour anniversaire yi peut-être ñu jàllale quelque puisqu'on a plus de temps jàllale anniversaire bu Amina bu Serigne Fallou longue vie à toi santé de fer c'est de la part de toute la famille Ka ñoom ñëpp ñu ngi lay béggee bu baax c'est mon anniversaire jàllale leen ko s'il vous plaît <laughs> joyeux anniversaire à Adja Betty joor Euh, Betty moom tamit suma doom la euh, nekkoon na fii ci télévision Futur Média elle est très jolie euh, donc Betty Madior ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire ki ci topp nag suma doom la Tanor tanoor baayam Euh, euh, man mii la bokkal ak zombu comme mbokk daa feeñ ci diggante Mado ak euh, may a Gueye hasard amul donc man sama mbokk ngi kii doomu Tanor Mbuub la Joséphine Mbuub bàjjanam la ñu ko tuddee ah. turandoo Jo moo nekk nii Jo la collégienne mm-hmm. voilà mm-hmm. Jo bu télévision Futur Média la grande réalisatrice turandoom doomi Tanor ji on lui souhaite un bon anniversaire Joséphine Joséphine Mbuub de la part de son papa Tanor et de sa maman Mam Say suñu jigéen suñu jabar joyeux anniversaire à maman d'amour Binta Cheikh Diop c'est de la part de Anta Dia depuis HLM Angle Mousse joyeux anniversaire à Badjan Binta euh, Badjan Binta c'est de la part de sa fille Fatsey Mbaye joyeux anniversaire à Fama Lay Thiam depuis Amo on lui souhaite beaucoup de bonheur ñoo si lui sa nag temps yi dañoo xewal programme buy waaj a ñëw rek ñu ne ko cobb ci wetu écran bi fi mu nekk nii Amina Poté euh, la ñuy noonu ci écran bi puisque bu 11 heures et quelques jotee dans quelques minutes bu ñu laalee rek mooy lal moom comme ñun fajar la ñuy ibbi bu ñu tëjee mu doog a ibbi lal na mu ngi ñëw bégal leen ainsi de suite vous aurez euh, li topp ci programme bi bu leen euh, bu ngeen bëggee xam lan mooy programme mu TFM à tout moment regardez ci peggu écran bi par exemple vous êtes en train de seen euh, Mamadou Ndiaye ak ki nga xam ne ni mooy Mary Bey Diouf tout à l'heure en mi-journée ci li xew ci internet bi voilà je pense que Pape Samba on n'aura pas le temps peut-être de passer les autres wu ñun ñu def tour de tàggatoo je reviens demain incha allah bu 9h jotee merci euh, a Gueye Massiré Issa Dieye Fatim Penda ak Latsu Kaabe borom fukki jabar ak ñaar ay sata koddoog Samba ak Fatma ak Moukhri Diak Dior juróomi li ngeen saa xeer seen bàyyi ba seen sama mooy seen càmmin comme récitation. yow koo faale man maa la namoon <laughs> lii moo tax ma doon ma da ngaa jàng yow. yaa ngi tey jàng. à ah. Eh. yow da nga taag Mado ah. Viviane fi way ku mu neexul. waaw ku mu neexul toppal fële dëgg la <laughs> merci Maimouna ba léegi merci Pape Cheikh euh, à lundi incha allah ma lay remercier namoon naa la trop. maa la attendant maa ngi remercier sama petite sœur Marema Saliou mm. moo jaar fii si bi à lundi incha allah. à lundi incha awa gaay. thank la semaine daañu ànd ak yow ci euh, euh, seetu bi weekend bi ñu ànd ak yow ci weekend star eh, sama xarit bi Alaaji Malick tey la naa ko wax léegi ne Alaaji Malick sama ku baax euh, mbokk ndeyam Oustaz Pape Anne mbokk ndeyam Pape Cheikh Diallo mbokk ndeyam monsieur Dieng Alaaji Malick da ngay weddi li may wax nii ah da ah, ci am xel ñaar loolu la ko Oustaz Pape Anne di wax Oustaz Pape ñu ngi koy ziar bu baax donc Alaaji Malick happy birthday thank you thank you euh, kon euh, di leen jox dig daje comme ni mu ko waxee rek euh, seetu bi ak Weekend Star waaye di jaajëfal suñu taar for the beautiful um, perruque the hair the coiffure aussi and di jaajëfal uh, Amif Hair and Spa si the nails thank you so much bye ba lundi with another ba inshallah <laughs> Monday <laughs> Tuesday xam na ki créé day day yi dafa énervé woon <laughs> te ki mu doon wax mu bind dee yi da koo mere woon bugg saaga xam naa <laughs> maanaam ko bintal yow waaye soof wax sa Tuesday voilà Saturday bindal <laughs> day barki yàlla ah, ah. ki ko créé maa ko jàng man Amérique laa jógee. man la wax su problème. damaa yëngu de. Eh, eh, maa ko jàng eh. ma wax de waxal ak ma ne. waxal ak dama yëngu de. sën Ndeye. <laughs> ah baax na sën Ndeye ngi ci télé bi. sën Ndeye arrêté. du ma sa morom. sën Ndeye jox ma cër <laughs> baax na. <laughs> yow maam rek moom moo nekkoon sa mag bi. ah déedéet ci rafetal la rek waaye bu ñu ah. xoolee ci ati nag. ah maa ngi magam nag moo leeral lépp lii eh, lii. <laughs> allez thank you donc ba Monday prochain merci Mado et à demain incha allah à demain incha allah donc merci aussi à Chiki. Euh, choupi chic sama rakku bopp la euh, pour la tenue et puis euh, glam style by Mado pour la coiffure 77 552 39 78. voilà ki bokkoon ba muy neex safkaani ma ngay échauffement ba léegi nii elle vous <laughs> retrouve dans quelques minutes Eva Tra Eva waajal léegi kaaru ngoon nga mbokk man sax damaa bëgg a bind leetal pour bokk kaaru guddi. <coughs> mooy bi ñoom kii di def. par xaaju guddi am na ñuy def. cinq heures ñoom doyen boobu laa bëgg bokk. seetu bi la seetu man damaa sonn ci xëy fajar bi. Eva moom dañ ko teel a libéré yóbbu ko ngoon bu ko defee elle a le temps euh, jaar atelier wam dessiner quelques modèles euh, bàyyil ko personnel bi pare dem jaar këram defaraatal te jëkkër dafa bëgg café. defaral imaam sama ne Eva dina defar dina defaral ci journée bi cinq fois café ah. lu bokkul ak añ bi de. Ah minute bu nekk mu ne ma chérie xaaral ma dem defaral monsieur café. <laughs> mu ne ko ah. mën na ko mu ne ma noo imaam la. i maa ko kaa defoon xam nga léegi dafa yokk waxu nar bi ay ah, Eva tuuti la ci doon wax bi muy doog a ñëw mais léegi daf ko i lay i bi muy doog a ñëw i la doon wax mhm. i papa cher mais li deen ma i papa cher léegi foofu la awa awa i télé bi fulu na télé bi moo flou ci ñun wala dafa flou ci télé bi ci ci ci télé ñëpp. seen télé bon xaaral ñu tàggatoo. Eva Tra vous la retrouverez euh, tey ci après midi bi moom ak Mamadou Ndoye Bane bàyyi dégg si maire Ndoye Bane yaa yaa yaa yaa yaa am kóllëre. Mm-hmm. ni nga ñaawee noon nga amee kóllëre loo ñaaw rek am nga ko kóllëre. te lii nga def dem démb ku sañoon def ko ñun ñii ñëpp bu ñu sañoon am doomu jigéen tuddee ko Adja Déguène Chimère mm-hmm. xam naa ni bu ñu moytuwul euh, télévision Futurs Médias wala groupe bi dina bëri euh, ay déggéen yu ndaw mm-hmm. ñoom saa saaneek ñoom ñëpp am nañu ay mm-hmm. déggéen donc Ndoye Bane am na déggéen yàlla nañu yàlla may déggéen inspecteur Ndoye Bane Mami Diop Linguère euh, mbokk ndeyam Thiat di ngeen àndandoo ak moom Euh, tey ci après midi bi ak euh, Eva Tra Kor euh, Imam Mamadou Ndiaye on n'a pas pu joxe information sport yëpp c'est bien fait pour toi puisque tey ci guddi <laughs> toute la rédaction Desk Sport dinañu dellu si en première partie de soirée Mame Fatou Ndoye and mhm. comme ça ñu gën a développer tout ce qui est actu sport. amul benn problème loolu ci mm. kanam dinañ ci ñëw ci guddi gi dinañ ci ñëw gën ko yaatal mais surtout ak candidature Augustin Senghor bi nga xamante ne actuellement mooy actualité sportive mm. ci présidence u CAF. Mm. ci kanam sénégalais li ci war a xaar mais surtout actuellement ni nga xamante déjà campagne bi xam naa ne tey bu defee lancement bi campagne bi dina commencé ñëpp fas yéene ko jàppal jàppale ngir fexe mu ne ko dafa am nu muy demee ak ñun nag <laughs> waaw waaw dafa am nu muy demee de. yombé <laughs> noonu wax nga dëgg de. oui sama numéro bii am na orange money te maa ngi léegi 6 millions. bataay bi bataay bi bari na bataay bi du du du. dama ko damay doog a dellu si nag. Mhm. <laughs> te da nga suppi ay ouverture te li ma yoroon jeex na barke Amina Poté jaajëf ci kanam dinañ ñëw ci kanam dinañ ñëw euh, <laughs> seetlu woon ni Cheikh Ba laa njëkk a nuyu te ngi Cheikh Ba Kodou Fall <laughs> ñun doomi mag yi ñu ngi <laughs> yéen a ngi xaar yow justement da ngay tàggoo yow suba sëqat nga plateau bi yëpp tey moo tax suba a tout moment mën naa bañ moo tax à tout moment da ngay tàggoo nii demal gaaw d'accord demal merci et peut-être à demain sinon ba keroog sa kër bi di wér incha allah j'en profite juste pour souhaiter un bon anniversaire à Pa Ousmane mm. suñ benn rakk bu réew la ba dof meilleur ami bébé Khady mais bon nu ñu ci dara dañ koy gérer Goro Liliane donc euh, toute la famille te souhaite un très bon anniversaire ni jaay jëkkëram la mais xale bu réew la mm-hmm. donc on te souhaite un bon anniversaire bu Ndiaye également on te souhaite un très bon anniversaire yaayu bébé Fa mm. ñëpp ñu ngi lay ñaanal man na fi Beps tout le toi gudd fan ak wér je remercie Gla Couture ma femme madame Amadou Ndiaye Binette euh, pour ma tenue de ce matin et bisous à tout le monde à demain inchallah voilà merci Thioro Khadisi yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax ah di la sant yàlla na sa jàmm yàgg yaayu xale yi vraiment ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax kontaan nañu de kontaan naa de gaañ kontaan naa de Diop vraiment bég naa lool fils waaw ah, kontaan naa lool yow daal demain ñu ngi lay xaar jo waaw merci Pape Cheikh à demain c'était un plaisir de te retrouver bu fi gëjati nag sinon man xiir bi laay jël incha allah ngay daw demal nga toog ma la koy lan nan lan la nan <laughs> la ko ajaajo ma la koy piip voilà <laughs> merci beaucoup à Linguère Shop pour la tenue donc dinaa poster photo yi tout à l'heure son numéro c'est le 77 633 57 am na arrivage bu bees merci beaucoup au salon de Ndela pour la coiffure téléphone 77 151 53 75 Fatima ak mami ñu ngi fa pour defaral ni yu naay si àdduma incha allah. voilà merci bonne journée euh, euh, Medoune kontaan nañu Petit Ndoy namoon naa la da ngaa mujjee ndelu Euh, merci beaucoup euh, Djili Diémé Pape Samba Thiam euh, mon ami toog mu Serigne Fallou yëpp ah ku lim Dioum ku euh, desaat defe naa maquilleuse yi ñu ngi leen di gërëm waa SVA aussi merci Amina Poté pare na pour gunge leen léegi nii ba midi 30 en direct lay doon ci télévision Futur Média à demain